5 mai 2019 euh, bonsoir à toutes et à tous euh, mbokk yi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak santam ñu am mbégte teewaat fii ci seen plateau lii euh, ci fii ci chaîne bi di 2STV ni ñu koy defee nag dimanche bu jot bu waxtu yi jotee ñu dajeek yéen fii ci digg daje bi ñu am dimanche bu jot ngir waxtaanee li nga xam ne moo soxal askan wi nu ñu koy defee nag dimanche bu jot tey ji itam Euh, tal na nañu leen euh, thème bu amam solo ngir waxtaanee ko ànd ci nag ak ay kàngam euh, ngir nees def daal ba am tontu yi nga xam ne moom moo jëm ci laaj yi nga xam ne moo nekk ci bopp Sénégalais yi ci noone la ñuy dalal ki nga xam ne moom mooy directeur général bu SNHLM xam ngeen ni bu ñu waxee SNHLM rek war ngeen jëli ne li ñuy waxtaanee wàllu dëkkuwaay la jëm itam ci li nga xam ne mooy tax bu jëm ci wàllu lii di simon Euh, du kese ñu ngi lay nuyu di la dalal ci émission bi. ñu ngi lay fay euh, Mamadou Lamine di nuyu ñi nga xamante ne ñu ngi bokk ak ñoom plateau bi particulièrement suñu yaay soxna Fatou ak euh, soxna Hélène di nuyu aussi ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy seetaan tey di rafetlu aussi invitation bi ngeen ñu invité. Mm-hmm. di am yaakaar ne bu ñu génnee ci émission bi. Mm-hmm. xëy na li nga xamante ne lëndëmoon na ci bopp ñenn ñi. ci wàll woowu euh, gën a mën a leer. jërëjëf euh, Mamadou euh, Kassé ci geneen wàll gi ñuy dalal Jean-Pierre Dieng moom bokk ci mooy secrétaire général bu Union nationale des consommateurs du Sénégal ñi nga xam ne ñooy jëfandiku yi Jean-Pierre ñu ngi lay nuyu. jërëjëf maa ngi leen di nuyu yéen ñu ñu invité ak animateurs yi ngeen doon ak ñi ma bokkal plateau bi am yaakaar ni émission bi dina nañu am lu ñu indil ci wàllu xam-xam ak itam luñ ci mën a jàngat pour askan gi mën a xam luy xew ci li nga xam ni moo waral waxtaan bi tey mhm. jërëjëf Jean-Pierre Dieng euh, ni ñu koy defee nag ñu ñuy àndal ci émission bi dimanche bu jot di suñuy chroniqueuse bokk na ci professeur Fatou Sow Sarr xam-xam màcc wàllu sociologie euh, professeur maa ngi lay nuyu di la waa maa ngi lay nuyu Mouhamadou Lamine. Euh, di nuyu senegal yi ñuy seetaan yépp te comme ñu ngi dugg ci weeru koor ñuy euh, ballonte ak ak ñépp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy seetaan ci senegal ak si euh, bitim réew. di ñaan yàlla rek jàmm am si réew mi. Mm-hmm. ñu dugg ci koor gi ak bisimilah rahmaani rahiim génn si alhamdulilah rabbi alamin te yàlla nangul suñu jàmm. di nuyu monsieur Dieng donc di nuyu. monsieur Kassé le directeur général SNHLM di rafetlu nag teewaayam fii. Euh, ndaxte bu ñuy wax lu dem ni. laaj na ñi nga xam ne ñoom ñoo yore. ñoom lañ dénk yenn responsabilité yi ñuy mën di ñëw pour euh, gën a indi ay tontu ka ay leeral. parce que information yi am ñeneen ñi duñ ko am. bu boobaa bu ñu weccontoo xalaat yi parce que euh, objectif émission bi. Mhm. moo di rek askan bi. am si njëriñ. donc di nuyu aussi Hélène euh, di rafetlu encore suñu <laughs> dajewaat fii tey. donc Hélène pack bi jeex na de. <laughs> très euh, ñu ngi lay nuyu. mais mais joxuñu ngalax moom xamul li ma ko wax ah. yoon newuñu ngalax. <laughs> man de looloo ma jaaxal lii daal équipe bu lii daal ñun gisuñu ngalax. lu dinañ ko def ci weeru koor gi uh-huh. maa ngi sant yàlla bu baax mën fi teew di nuyu waa Sénégal yëpp à travers euh, la 2STV uh-huh. di ziar kilifa yi di nuyu bu baax suñu invité yi monsieur directeur ñu lay nuyu bu baax di la sargal uh-huh. Fatou ni mu ko waxee foog naa émission bi pour askan wi la te bu ñuy junj loo xam ne bokk na si li nga xam ne moom lañ leen jox ngeen ñëw teew fii dafay nekk lu am solo. Mhm. parce que loolu mooy solool émission bi kon ñu ngi lay félicité bu baax. Mhm. di di di di yaakaar ne aussi dina tax ba ñeneen ñi tamit. ñamee ñëw ñamee ñëw bu baax a <laughs> baax a baax ñu ngi lay sargal di la di la vraiment félicité bu baax a baax. Mhm. di nuyu Jean Pierre bu baax moom it si combat bi ñuy euh, bi muy bi muy mëne pour les consommateurs. Euh, di euh, donc comme Fatou ni mu ko wax. di euh, ziar waa Sénégal yëpp à la veille du du Ramadan. Mm-hmm. Euh, di ñaan yàlla barkel koor yëpp. yàlla nangu ñaan yi. mu sa baawaan si Sénégal yëpp. je pense que di xew rek génn ci carême ñoo dugg ci Ramadan. Mm-hmm. nekk na ni que vraiment bénédiction yu mag la pour réew mi. c'est de bon augure. waaw c'est de bon augure. <laughs> <laughs> Euh, di ànd ak émission bi itam ak Amadou Diaw Amadou maa ngi lay nuyu. Lamine maa ngi lay fay di suñu ñaari yaay yi maman Hélène Tine ak maman Fatou Sow ak suñu ñaari invité yi di nuyu yi nga xamante ni saa su ne bàyyi nañ seen xel ci seen émission bi nga xamante ni Dilli di jaar fii sama ñaari yaay yi jaar rek ci weeru koor bi nga xamante ni ñu ngi ko jëm yàlla nañu yàlla may kàttan bi nga xamante ni dinañu woor weer wi yëpp jéggal suñuy bàkkaar ci barke salatul fatiha mm-hmm. jërëjëf Amadou ci euh, écran tactile bi nous avons Euh, Astou Kane Dione la ravissante Astou bonsoir. bonsoir Emelka bonsoir aux téléspectateurs également waati chroniqueurs et invités donc maa ngi leen di nuyu et surtout les internautes yi nga xam ne tout le temps ils nous accompagnent durant cette émission di leen wax ni rek comme tous les dimanches vous pouvez réagir euh, nous envoyer vos commentaires et suggestions à travers nos différentes plateformes 2STV l'officiel boo leen bëggee envoyer message vous pouvez juste nous envoyer des messages euh, sur 2STV également numéro WhatsApp bi toujours euh, d'actualité mi ngi fonctionner ba tey 70 704 00 00 à part ça mun ngeen réagir également sur Twitter euh, également sur euh, voilà WhatsApp Twitter et Facebook thème mu tey bi nag euh, lancé nañ ko déjà il s'agit des logements sociaux et taxe euh, sur le ciment c'est-à-dire euh, logement yi nga xamante ni njiitum réew mi bëgg na ko tabaxal euh, ñii di néew di doole yi donc taxe yi nga xamante ni moom la ñuy jëlee ci ciment bi loolu président Macky Sall fas yéene tabaxal ñi nga xamante ni moom la yéene yooyu les logements donc lan moo ci seen xalaat c'est le moment ou jamais de réagir par rapport système MLK ñu bàyyi leen yeen débattre ba ci kanam on va recueillir euh, bien sûr les commentaires. très bien Astou euh, donc euh, ni nga ko waxee noonu la. waaye xam ngeen ni émission bi ñaari pàcc la pàcc bu njëkk bi ci la ñuy soobu léegi ànd ci ak Amadou Diaw. voilà jërëjëf Mamadou Lamine Ka tey nag li ñuy doore li nga xamante ni moom moo di li ci actualité dañ koy daal di doore ci coow bi nga xamante ni jib na fan yi ci mbirum lii di daqal lii di muuru ci yenn écoles yi lu ci mel ni fële ca institut Jeanne d'Arc moo waral kii di Daniel Doise nekk directeur des programmes français Secours Sainte Marie bu Hann daal di ci indi ay leeral ñu teewlu ko moom Daniel Doise ci micro bu Thérèse Sambou anticiper sur des choses qui ne sont pas officialisées, parce que je crois euh, savoir que c'est un projet de modification du règlement intérieur. waruñoo di yàkkamti wax fii ak amuñu lu ñu ci leer euh, te boo xoolee mbiruma dindi ay mbuuru ci école yi loolu ab projet rek la euh, dañ ko daa proposé kon dina ci baax ñu gëstu fan la mbir yi sooxee waxaat itam yenn ci ay ndongo seen doxalin na rafetul boo demee Jeanne ak cour Sainte Marie de Anne am na ci ay ndaw yu nga xam ne dañuy tàmm di beru ndax lan waruñoo nuyu góor wala yeneen itam bu leen fàtte ne école lieu de tolérance la. ba fi ma toll nii nag waxtaanooguma ak sama xarit moobu di directrice bu institution Sainte Jeanne d'Arc li ma leen mën a dénk mooy yàgg na am ay tolof tolof ci boobay école amoon na sax ay jamono dañ ko daal di wax ay kàddu yu ñaaw ci réseau sociaux yi dama jàpp ni sax loolu moo ñu indi ci bile situation di ñaaxaat nag parents d'élèves yi war nañoo xool ak liir lii di règlement intérieur bi amaana sax buñ ko xooloon duñu egg fii tey dinañ mën a di waxtaan ak ndaw yi def li war ci privé catholique yi nag mbuuru ak ñàkk mbuuru nañ yemle ci ay règlement intérieur rek lañuy doxee. doit être informé de de de ce qu'on a signé. je pense que cette modification euh, de règlement telle qu'elle est proposée, elle, elle doit être entérinée par une instance. fële ca Cour Sainte Marie mu coow bi daal di jib fan yi jëm ci li nga xamante ni moom di mburu Mamadou Lamine ginnaaw loolu nag dégg nañ kii di ay kàddu di xam ne mbir Sénégal est une mhm. euh, li bëri woon na euh, xawma xaw ma Hélène lay tàmbalee <laughs> wala Fatou coow li bëri woon na trop ci ayu bés bi jëm nag ci li nga xam ne mooy dogal bi euh, école bi di seen gendarme jël ne xale yi nga xam ne ay jigéen lañu te dañuy muuru. dañ leen di tere eh, jàngee ca école boobe waaye li ko waral mooy ci lu nu wax dañu ne xale yooyu eh, dañu waroo ak doxalinu école bi ñenn ci ñoom dañuy bañ def eh, di jaxasoog góor ñi bokk ak ñoom toog wa toog ci wàllu éducation sportive ak yu ni mel dañu ci indi ay jafe-jafe loolu ci argument yi ñuy joxe ne loolu moo waral dogal boobule waaye mu mel ni lu bees la fii ci Sénégal loo xam ni coowal feneen la foo xam euh, xëy na ca tugal ca France ak feneen la ñu faraloon di gis coow yu ni mel wàllu muur ak yooyu mais mu mel ni coow loolu itam euh, mi ngi bëgg a ñëw ci suñu réew yi faatu. waaw euh, question bi du question bu simple. li ñu war a d'abord fàttali moo di li ñu boole ñu xool suñu histoire da ngay gis même famille ñiy nekk lii ñiy lekk lale mm-hmm. def naa ñun Sénégal ñooy am moo xam ne catholique ak euh, musulman yëpp la ñuy boole. di leen ay cimetières yoo xam moom laa leen doon bëgg wax. ay sëg yoo xam ne di leen fa boole. parce que ñoo xam ne ñoo bokk benn meen bu ñu xëyee kii gëm fii kii gëm lale loolu mënul teqale la ñu bokk. loolu mooy d' abord premier problème mu question wu Sénégal bi ñu war a euh, man gëm naa ni bu problème amee war nañ toog waxtaane ko déglu ku nekk ba xam fan lañ jëm. Euh, man su ma doon ministre de l'éducation nationale du ma def nu mu defee. Mm. Euh, parce que xëy suba rek parce que du loi mooy régler problème bi. Mm. toog waxtaane ko comprendre ñooñu lu tax ñu def ko parce que problème bi dafay poser problème bu gën a xóot. école confessionnelle école confessionnelle la tudd euh, man Belgique bi ma nekkoon. Mm-hmm. école publique bi dañ la fa boo bëggee dangay jàng alxuraan boo bëggee jàng catéchisme boo bëggee jàng judaïsme. parce que état bi daf ko warlook yow ñoom seen laïcité loolu la. mais jésuites yi seen école seen lañ fay jàngale lañ fay jàngale. Euh, musulmans yi seen école lañ fa bëgg jàngale lañ fay jàngale ñëpp nag dañuy tënku euh, am na un programme boo xam ne état bi moo koy joxe pour que nit ñi am acquisition de compétence yi ñëpp ciy tënku. mais bis boo tuddee école privée da ngay tudd loolu maintenant mën nañu wax ni kam Sénégal comme yàgg nañ di jaxasoo di joxante ay ngalax ak yu ma xamul. kenn warul xañ sa beneen morom mu dugg ci école bi te nga nangul ko ngëm-ngëmam. Mm-hmm. mais loolu tamit day fekk nga waxtaane ko ak nit ki parce que nit ki moom yëfam ba pare. Mm-hmm. nga ñëw ni da nga koy daan war nañ ko seetaat. waaye mais est lu lu lu lu bees li ci bees moo tax c'est parce que bu fekkoonte ni école bi dafa mës doxee noonu que ni euh, noonu la mës di doxee. est-ce li ma la bëgg a wax moo di mm. problème bi c'est très sérieux xam nga dañ fi génne problème mu voile problème mu voile islamique bi. Mm-hmm. mu poser problème si yeneen pays comme Tugal école yooyu ñu si bari aussi dañu jokk si programme français yi. Mhm. bu ñu fàtte loolu tamit euh, bu ñu deful nànk rek dafay nar indi ay dafa nar indi ay ay xëccoo moo tax ma ni dafa laaj nit ñi toogaat euh, waxtaane waat ko bu ku nekk seet lan nga mën nangul sa morom mais man jaaxal na ma nit moom yi fam ñëw école am nga ne ko par force li nga fiy def donte état bi dafa poser benn principe. day subventionné école yooyu li mu mën mooy bu ko neex mu bañ leen subventionné ti parce que li ñu leen di subventionné c' est au prorata de li nga am ci ay nombre élèves euh, te tamit euh, intérêt bi c'est réciproque parce que école catholique yi peut-être que quatre-vingt-dix pour cent yi ay musulman lañu. Mhm. bu musulman yi xëyoon suba tey génn seen ay élèves ñoom tamit du ñu am seen activité du mën a jàllati mais de autre côté c' pour interroger aussi les musulmans parce tamit. toog ba tey di xëccoo ak catholique ni par force samay doom man musulman dafay jàng ji mm-hmm. yow lu la tere woon yow tamit nga fexe ba góor góorlu créer sa ay écoles yoo xam di nga fay am sa sa ay doom une fois nga pose principe principe boobu li ci des mooy dañu war dellu si toog ak waxtu parce que kenn mënul dem bàyyi sa morom parce que je crois que benn fulaar bu ndaw bu nit ki di takk rek loolu mënul yàqal parce que boo xoolee kiñ naan dafay muur ak sœur bi lan moo leen wutale ah. ñoom ñëpp dañuy muuru ñoo niroo mm-hmm. jullit biy muuru ak sœuru catholique bay muuru ñoo niroo parce que en réalité ñun ci sañu gëstu lu sax samay gëstu benn archéologue turc moo ko génne nee na voile ça jiitu na euh, christianisme jiitu na l'islam ça existe cinq mille en avant Jésus-Christ mu wax si yu bare yu tax sax ñooñu dañ ko jëloon tëj ko kaso archéologue bi génne woon loolu en Turquie au début des années 2000 donc euh, pour ça c'est révélateur de quelque chose de profond euh, kii la rek euh, problème bi du voile bi mhm. pour man parce que xale yi daa woon nañ di voile di fa nekk war nañ xoolaat si biir il faut aller au-delà waaw war nañ xoolaat ci biir lan moo fa dem mais d'une manière générale euh, on est dans un contexte très dangereux pour le Sénégal c'est-à-dire des replis les replis identitaires le repli communautaires les replis de toutes sortes yoo xam ni euh, motivation ba ak la tax ñu koy def mën na ba mën na am mu mu wuute. Mhm. mais bu fekkee dañu bëgg jàmm dañu war dem toog parce que tooñ tamit baaxul. Mhm. si man li ma gëm dañu war dem toog toog ak ñoom ñu xool lan la lu wu Sénégal wax nee nañu on est une société laïque mais on est une société laïque dans lécole école publique sénégalaise bon école privée ba école confessionnelle la tudd. Mhm. ki nga naan nee na dafay muuru par force pourtant bu demee ma ngay jànn ak Jésus Christ biir classe ba parce que ñoom seen classe dañ ciy tapp loolu. yow yaa ngi dugg ci école boo xam ne loolu lay def kon il faut que Sénégal yi xoolaat tolérance bi c'est des deux côtés ku nekk na nga jéem muñal sa morom mais bu ñu seetee ni ñun ñëpp ñoo bokk ndey ak baay ñoo bokk maam parce que tey kii kii sa xëy sa dugg ci bii kii dugg ci lale la leen boole mënuñu koo taqale kon nañ ko defee nang waaw loolu moo tax man man dama bokk ci cadre unitaire pour l'islam mm. bi nga xam ne Cheikh Tidiane si doomu almaxtum moom moo ko jiite ak ñoom Cheikh Gueye bi bi fi nekkoon ñu ngi ciy dox mais dama gëm jéem commencé dox dem laajte ji ba xool naka la ñuy ku nekk naka ngay bàyyee seet ñale lan mooy véritable problème bi tax ñu mën a def loolu parce que bu fekkee xale dañu ñëw tamit respecté wuñu règlement école ba loolu lañu wax mais mun nañ dem ba kenn ki musulman bi ñëw ni man tamit sama doom du nuy jig du nuy góor sama doom du toog si watu si wetu si watu góor si benn biir classe bi ça c'est des question de fond mm-hmm. nañ toog ñu. mais loolu tam mën nañ ko nangul jullit bi bu fekkee. déedéet mais école ba est-ce que damay jël école naa damay ranger jigéen fi ranger góor fale bu dee nekkul ci principe bu école ba loo koy def. parce que mën loo ñëw ci école jàmbur ba pare ñëw ni par man sama conception moo fay dox. moo tax ma ni ku nekk dafa war seet comme ñu tàqale ko. ñu seet ku nekk lan la war nangul moromam. bu ko bu boobaa mu dox mais du luwaa moo koy moo koy réglé du naan damay rappeler constitution mais ñëw dem toog. waxtaan ni yéen dëkk bi parce que li ma la wax rek bu jullit yëpp xëyoon suba génne seen élève ñoom tam duñu ñu jarle mhm. parce que la vérité la major majorité ñu fay jàngale mooy doomu jullit mais waxtaan moo koy réglé mhm. waxtaan moo koy euh, réglé loolu mooy sa gis-gis itam Hélène waaw jërëjëf euh, question bi ñu posé bu am euh, solo la mais bu mhm. sensible la damay regretter rek contexte bi mu daanoo nga xam ne ni ma wax sànq dañoo génn ci pàcc doxal li nga xam ne moom la ñu xamal Sénégal mooy saafonte bi am ci diggante communauté religieuse yi ñuy dem di dugg weeru koor wax ju mel nii tàbbi indi tole bu mag mm-hmm. man dama xalaat ne wax ji dimension biñ ko jox ak li mu indi ci coow ak ñi ci dugg jaru ko wax ci ay wax yu rëy egg waru toon yegg foofu waru fa woon yegg parce que en réalité mm-hmm. man gisuma fenn fu ñu waxagum ne tere nañ voile ci école boobu ñuy wax dégg ngeen sànq kii li mu wax mu ni pro projet boo xam ne la dañ ko doon xalaat kan moo ko doon xalaat ak lu tax ñu xalaat ko loolu lañ doon war a wax mais suñu yeewoo rek indi fi te nekk na préjudice bu mag pour Sénégal pour suñu image ñun di ñu xamal cohésion bi ñu am entre suñu communauté yi mm-hmm. wax ji fi mu jógee en réalité concerné wul sax directement ñun sénégalais yi parce que ñeneen ñoo ko yëkkati. Mhm. ñoo xam ne même bu ñu nekkee de nationalité sénégalaise ñoom ñoo yëkkati wax ci parce que soo demee ba ci biir Jeanne am na ci préjudice mais Fatou wax na ko école bi ñooñu ñu ñi ñiy jàngee foofu mais man samay doom mënuñ fa jàngee mhm. parce que école française la c'est le programme français dañu ah. concerné. pas seulement. Ah, de façon générale. ñi ci gën a bëri à Jeanne d'Arc ñi concerné par wax ji même soo demee sax Cours Sainte Marie de Hann la majorité ñi nga xam ne ñoo yëkkati wax ji ñi ci gën a bëri seen doom yi programme français la ñuy suivre foofu donc man je dis que nañu moytu def ndànk parce que wax nga ko sànq bu fekkee ni que man damay dugal sama doom si benn école may imposer école bi ne ko sama doom table ba muy toog par force ay jigéen kese lay toogal wala ay góor kese bu fa jigéen ñu ëppee wala góor ñu ëpp fa école ba nu muy organiser wu. nga ñëw indi ne damay dugal sama doom ci école bi du def gymnastique wala tenue ba ñuy defee gymnastique ci école bi du ko sol. c'est pas adéquat alors li muy sol c'est pas adéquat pour faire. ñeneen ñi war ko sol. mais dañ waxante dëgg waxtaan bi kenn mënul nangu ñuy exclure kenn ne parce que. dafay voilé wu moo tax du dugg ci école bi loolu amut en tout cas man de xam naa ne amul Jeanne d'Arc ba fi ñu toll nii amu fa. mais tête découverte la ñu wax ah pour les filles et les garçons je pense que loolu c'est clair. loolu non non ça veut dire actuellement je parle d'actuellement. Oui. le règlement intérieur de Jeanne d'Arc oui, oui, est clair oui parce que règlement boobu ça devait entrer en vigueur. en septembre oui mais le problème c'est qu'est-ce qui s'est passé. qu'est-ce qui s'est passé je suis convaincu que li li ñuy li dafa am lu xew. man mm. ma pour ñu et Euh, man pour man euh, franchement dafa am yeneen yu ci laxasu yoo xam ne ñun sénégalais ñoo ko war jàngat xool ko éviter ay nit ñëw indil ñu loo xam ne xamuñu ko biir Sénégal parce que pour man su fekkee ne Jeanne mhm. euh, le voile n'est pas interdit là-bas su ci amuloon leneen lu ci rax ci diggante boobu mooy nga ni sama doom du def gymnastique mhm. du sol tenue bi ñuy defee gymnastique du toog du toog ak xale bu góor ci mais loolu su boobaa <laughs> lan lay leneen lay jur non euh, en tout cas c'est complexe oui, c'est pour complexe. c'est très complexe oui, très complexe et très mhm. sensible et moi je sais que man en tant que membre de la communauté chrétienne je sais que loolu mënuñu mhm. tey duut baaraam jàngu bi ci yu mel noonu amu fa très loolu loolu loolu c'est euh, clair loolu amu fa en fait man li ma bëgg xam mooy. li ma ci bëgg a sànni. man du du sori. Mhm. parce que bon je dire que waxtaan bi fekkee ma ci boole. Mhm. am na loo xamante ne su ma ci euh, amul woon implication. Mhm. duma ci discuter. mais c'est parce que man je suis parent d'élève à Jeanne ñetti doom. laa am yu inscrit nekk Jeanne ñaar ñu nekk école primaire ak kenn ku nekk collège. alors. y a deux choses j'ai par devers moi le premier mail que l'institution nous a envoyé le premier mai mi ngi nii premier mail yegg si tenue des élèves mooy objet bi mooy je pense le mail qui a été retranscrit euh, ci biir euh, je dirais dans la presse où on nous souhaite enfin en tout cas je je souhaite vous informer que la congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Cluny tutelle de l'institution Sainte-Jeanne d'Arc dans le cadre actuel de la relecture générale de sa mission et du projet de statuer sur la tenue autorisée pour les élèves de l'institution. Celle-ci se composera à partir de la rentrée de septembre 2019 de l'uniforme habituel avec une tête découverte, aussi bien pour les filles pour les garçons. Et après, il s'ensuit autre chose. Tête découverte, bon, je, je, la limite, <laughs> oui. euh, ce que je, je dois à cette institution d'abord, moi sur tous les volets et sur tous les points généralement autant muy parents d'élèves yi que muy élèves yi ci seen bopp souvent ils sont impliqués dans le dispositif et loolu nekk na loo xam ne dafa mës a nekk sax la démarche de, de toutes les écoles qui sont un peu affiliées euh, à, à, à, à je dirais euh, l'archidiocèse ou en tout cas euh, communauté catholique bi en tant que telle parce que moi je suis déjà un produit de, du collège Saint-Michel donc yàgg na xa xa yàgg nañu nekk ci institution yi nekk nañu institution publique nekk institution privée catholique donc mësul nekk genre problème yooyu. nekk problème mais man ce que j'ai déploré c'était surtout la décision bi nga xamante ne tombé na pour une fois. Mhm. je me suis dit tiens on n'a pas eu un élément de concertation est préalable. que c'est la première fois parce qu'en 2011. si on se rappelle bien dafa mel il y a eu une tentative de ce genre. d'accord mais xam nga man donc je disais man sur le frais euh, sur le frais. je me dis bon lu tax pour cette fois-ci je n'ai pas senti réellement peut-être une implication ba nga xamante ne ñun ñu mënoon xam justement raison yooyu parce que nous les parents d'élèves nous sommes les premiers concernés et puis c'est pas une école qui est école euh, gratuite c'est une école privée mmh. c'est une école privée dans laquelle nous inscrivons nos enfants donc ñun on paye un service c'est important de le, dire aussi mmh. euh, quoi que ça soit une école confessionnelle quoi que ça soit une école euh, euh affiliée peut-être à, à, à, ou, ou, en tout cas assimilée à l'Église, c'est une école privée. Oui. Si Deuxièmement, oui. c'est une école dans laquelle on ne rentre pas n'importe comment. Il y a d'abord des tests au préalable. Yo maintenant sont soumis les élèves, mmh. auxquels sont soumis les élèves. Tout ça, je me dis que nous, si nous sommes nous je pense que am na benn problème boo xam ne dépassé nañ ko pare. kenn mënuñu ko indi suñu biir bopp. parce que naturellement ñun Sénégal ñoo dépassé loolu. ñun ñoo mag loolu ba j'ai envie quand même de de de de vous poser une question. waaw bu nga yóbbu say doom privé au lieu de public. non xam nga xam nga aussi dafa am xam nga loolu tey toog ci télé. war a mën a ah non d'accord mais xam nga Saint-Michel pour man c'est une école comme comme comme Jeanne est une école. comme xale yi dañu nekkoon feneen. Euh, Pointe des Almadies qui est une école euh, comme ñenn ñi nekkoon Croix Rouge ak feneen ak feneen ak école publique man école Point e la laa jàngee chez Daba Sall et Babacar Sané donc c' est un choix boo xamante ne c' est des choix qui qui l' à chacun de justifier à sa manière. très bien waaw man toog fii ci télé di wax ne lii moo tax mu yóbbu sama doom gendarme. wala mu yóbbu ko c' est peut être. une fois li ma bëgg wax rek mooy. cest dire que avant. ñun ci lu ñu xam boobu il fallait lamentablement échouer dans le public Ça, pour aller dans le privé <laughs> loolu euh, bon ñun ci lu ñu xam parce que. public bi c'était pas toujours le cas ah Jeanne a a été ah mais école publique yi li ñuy am résultat ci concours général. école privée yi amuñu dëgg la mais ça c'est notre euh, il y a une certaine il y a un certain délaissement de l'école publique. Ah. je pense quelque part aussi qu'on se trompe souvent de de de d'objectif. publique yan école c'est Prytanée militaire. c'est Mariama Ba ce sont des écoles dans lesquelles il y a eu beaucoup d'investissements. Oui, c'est l'école de l'école euh, Limamoulaye. Non, Limamoulaye qui est une exception oui. parce que avec la masse, ça c'est des lois mathématiques. Le calcul de probabilité, si tu as 2000 élèves, beaucoup de chance d'avoir 2 pour cent bu fekkee fu nekk 2 pour cent la voilà donc fu <laughs> nekkee 2 pour cent donc je crois que ça c'est pas le débat aujourd'hui mais euh, on doit faire attention parce que le Sénégal est surveillé comme du lait sur le feu et moindre occasion mën na tax ñu porox ndollu si mhm. c'est des choses qui nous viennent d'ailleurs cest dire bu ñu demee ba ci biir c'est des choses qui nous viennent d'ailleurs loolu nag la ñu maîtrise wul maintenant le problème moo di sénégalais ci seen bopp bu dara amee rek ñëpp jóg mhm. ni tooñ nañ lislaam def nañ la la et cetera et cetera fekk du ñu xoolaale qu'est-ce que quel est ki soubassement qui est derrière c'est c'est comme am na yeneen problématique duñ ko wax fii tey ñu ngi ciy bëgg di porox ndollu mhm. di indi des problèmes euh, identitaire des problèmes de spécificité mhm. nga xam ne bu ñu deful attention dafa yàq loolu moo tax ma ni man su ma doon ministre éducation nationale naa xaar tuuti ñu dem seet concerté wu parce que surtout sort une loi de manière abrupte. nit ki tamit mais la loi elle la loi nañu waxtaan daal moi man fi may fi may daanelee rek ah, mooy leen mooy d'abord deux choses. Hmm. mooy que euh, Tata Hélène dafa ne c'est vrai que foofu euh, Jeanne c'est vrai hein, il y a le programme sénégalais est bien ancré man tout man sama doom yëpp programme sénégalais lañ nekk par exemple mm-hmm. nekkuñu programme nekkuñu programme français mm-hmm. programme sénégalais lañ nekk et pourtant on m'a envoyé le mail quand même mm-hmm. ñoom ñett ñëpp programme sénégalais lañ nekk ça aussi c'est un choix personnel oui. euh, alors ce que je dis et c'est ce qui était important d'ailleurs pour moi le choix il n'était pas forcément sur ce qui est important c'est que mes enfants suivent un programme sénégalais très euh, moom mooy Euh, pour man daal lépp lépp dañ ko war a tënk ci waxtaan. Mhm. te li ministre bi def aussi man mënuma ko ŋàññi xam nga lu tax parce que coow bu jógee il appartient à l' autorité. d' arbitrer d'apaiser non d' apaiser. et quelquefois d' être ferme parce que li ñu wax nii xëy na peut-être euh, texte la. mais finalement loi la loi la naroon doon parce que règle la bu nar a appliqué wu à tout le donc loolu aussi règle rek wala disposition rek moo ko mën a rappelé wala. bu ñu ko bàyyee mu jàll mën na aboutir ci loo xam mais je voulais juste insister xam nga je ne veux pas insister parce que wax ji comme ni ñu wax. Mm-hmm. wax ji. niroowul Sénégal. oui oui vraiment. Euh, du du xar kanamu Sénégal du jëfinu Sénégal. Mm. mais il faut aussi ku nekk ñu jox la parce que on a bien di ay école privée catholique lañ. Mm-hmm. xam nga suñ demee ba nangu ne école privée catholique lañ Fat Sarr wax na ko boo fa duggee aussi am na leneen loo xam ne ça veut am na loo xam ne dëgg la. il faut am loo séddee ci ci li nga moom ko non du loolu waxuma ne mais li nga xam ne yoon def ko def ko joxe. Mm-hmm. doo ci nangoo séddee. Mm-hmm. mais nañu xool exactement nañ étudier problème bi ça veut dire problème bi même c' est pas un c' pas quelque chose boo xam ne dañuy yeewu rek ku yeewu rek yeewu ŋaññ wax. mu gën a yàqal Sénégal mais statut bi am na am na par exemple man bi wax ji jolle am na ku ma woo koo xam ne sama mbokk la tin na sant mhm. elle était juste l' assistante du directeur de de de Yavuz Salim mhm. mais dañ ko ne pour nga nekk fii ci école bi da ngay hmm, non non dama lay expliquer non attends mais elle a accepté euh, parce que elle veut garder son travail tant ou yow Salim ça veut dire que. ku nekk monsieur Ka am na loo ah, que on va avancer mais c'est une question c'est une question. dafay ah. na solo. Euh, voilà. Euh, astu très rapidement j'aimerais quand même apporter une petite contribution. avant voilà parce que en fait dama. damay juste laajte est-ce que la tête découverte peut vraiment freiner yenn comportement yi au sein de l'école parce que peut-être euh, du genre refuser de donner la main à un garçon wala est-ce que bu ñu dindee voile bi. bon ça c'est des recommandations. voilà est-ce que peut-être ça bon. dama est-ce que est-ce que peut-être du ce serait pas mieux de s'attaquer bien plutôt mm. au comportement des élèves plutôt qu'au Marco bon c'était juste une petite euh, contribution bi ma doon laaj mais quand même téléspectateurs yi li euh, Hélène Tine doon wax internet yi dañ koy appuyer bu baax di wax rek que ni euh, Sénégal xamul loolu sénégalais yi xamul donc bu ñu leen plongé plongé ci benn débat boo xamante ni quand même ce n'est pas leur leur leur débat voilà kii mi ngi réagir WhatsApp di wax ne avec ce projet d'interdiction du port du voile quelle est la part du dialogue islamo-chrétien au Sénégal quel est le mobile de cette décision en quoi le port de voile peut avoir un impact négatif dans l'enseignement donc bu ñu jugee foofu également yeneen réaction yi par rapport à ça en bref euh, am na keneen kuy wax aussi que ni euh, euh, voilà moom mi ngi wax rek di ne attendez le problème de si moom ci ko ci ciment bi la ñëw di wax peut-être dinañ si ñëw juste après bu ñu commencer sujet bi entre temps voilà vous pouvez réagir toujours sur. Euh, il faut qu'on avance. WhatsApp euh, voilà donc euh, Mamadou Lamine euh, je pense que ñu avancer ci li nga xamante ni moom moo di li ci actualité ñu wax ci. li nga xamante ni moom moo di premier mai nekk bis bi ñu jagleel ñi nga xamante ni ñoom ñoo di liggéeykat yi syndicat yi nekk fii ci réew mi daal dinañu booloo yóbbu seeni i ci kanamu kii di njiit réew mi Macky Sall moom Macky Sall sax fa la yëkkati ay kàddu xamle ni bu kenn xalaat jamono ji lii di yokkute jëm ci li nga xamante ni moom moo di salaire ndax réew mi attanu ko ñu teew lu kii di président Macky Sall ci micro ku ma gisee recettes yi ñuy am recettes yi ñu ngi ci deux mille cent soixante dix sept milliards nga dindi moins mille huit cent soixante quatre milliards lan mooy des trois cent treize milliards cest bu ñu fayee salaire u fonctionnaire yi fonctionnaire gu ñu de jëndaguñu carburant jëndaguñu papier jëndaguñu oto fayaguñu téléphone yi fayaguñu dara investir guñu dërëm pour nit ñi maanaam gasuñu teen defuñu courant defuñu dara Alors, il cent 313 milliards pour le fonctionnement, pour l'investissement, etc. C'est à peine 26 milliards par mois. Alors, il faut donc nous ramener, nous avons prix, nous avons des nous avons mais avec quoi Avec quoi il va le faire Parce que, évidemment, à 26 milliards, il faudra ajouter déficit, mais dinañ ko financé par la dette. Donc, il faut que aussi, peut-être gouvernement bi gën di leeral nit ñi xam lu ñu mën ak lu ñu mënul parce que nag réew la mu amul doole amagul doole boog pour pas tout faire boo leen gisee may jël yenn mesures pour ne benn dina arrêté état bi di jëndal ay fonctionnaire ay oto ndax li tax man déjà bi ma fi nekkee léegi def nañu lu ëpp trois cent milliards si jëndum oto c'est ça la vérité plus de trois cent milliards oto même cinq cent milliards doon mu nekkoon kàddu ki nga xamante ni moom moo di njiitu réew Sénégal Macky Sall ci bis bi nga xamante ni moom moo di premier mais nekk fête du travail mu mel ni ba léegi Mamadou Lamine fast track moom mooy woy de. <laughs> fast track ak rationalisation. Euh, <laughs> mooy <laughs> les mots en vogue. bu kenn xaar. laajal Hélène Hélène bu kenn xaar <laughs> yokkuteef salaire président li mu wax leer na de. waaw maa ngi ciy profité di euh, di souhaiter en retard bonne fête à tous du Sénégal. Mm-hmm. comme après premier mai bi ñu ngi doog ñu ngi juste <laughs> début mai. Mm-hmm. bon président langage de vérité la génnee boo xam ne man de tiital na ma tuuti parce que dama ne kon lan mooy réalité yi comme moom léegi. Mm. xam nga maintenant c'est l'heure de vérité. waaw nee na amuñu hmm? doole. na les heures de vérité pour dire au Sénégalais lan lan lan la ñu mën ak lu ñu mënul réellement. Mhm. mais man dem ci xaw a tiit xam naa consommateurs yeeg ñu war nañ war a tiit parce que xamuñu lu ñuy xaaree leneen. Mhm. moi je pense que langage de vérité boobu ñu wax ko ñu xam li xew ñu ñu doxali doxalin boo xam ne dina jig ñëpp. Mhm. nit ñi mën cee fagaru nekk na démarche boo xam ne mënuñu ko bañ mais premier mais tamit ni mu waxee. ak travailleurs yi nekk na nekk na wax joo xam ne pour man mënoon na communiquer neneen ak ñoom mm-hmm. awma leçon bu ma koy jox daal mm-hmm. waaye xalaat naa ne travailleurs yi ak bés boobu ñu jagleel leen ko am na nu mu waxee ak ñoom yaakaar nga ni wax ji waroon na gën a non du ça veut dire wax ju mën nga wax nit ñi dëgg te te te xam noo leen koy waxee si bés boo xam ne sax dañ leen ko jagleel mm. man de ci wàllu waxin euh, pour man am na nuñ ko mënoon a gën a euh, waddee muur ko ba ba premier mai bi quand du du du mujjee ni que dem nañu joxe cahier de doléance mën naa wax ne dañu leen ils sont rentrés bredouilles non pas bredouilles sax mais on les a plus ou moins rabroués et ça je trouve que c'est pas c'est pas c'est pas normal bon je voulais en profiter aussi pour dire que Euh, président mu ngi wax mais nañu xalaat moom diggée na ay emploi de may def plaidoyer pour waa faste yi doon grève de la faim depuis juróomi at ak <laughs> ils sont cent quarante des jeunes qui ont leur diplôme ñu warul leen jël ministre ba nekkoon éducation sama càmmiñ Serigne Mbaye Thiam dilatoire naag ñoom dëgg la am na ñu mu ci jël trois cent et quelques parce que j'ai on a cheminé ensemble pour ça mais ba fi ñu toll nii cent 140 jeunes sénégalais yoo xam ne ñu ngi xeex depuis 5 ans grève nañ de la faim ak yooyu ma bëgg ci ñu jàppale leen ministre Mamadou Talla moom tamit je xam naa ko je l'ai côtoyé quand à l'enseignement euh, technique et professionnel maa ngi koy lancer appel mu recevoir jeunes yooyu wax jooju ñu mun ko jeexal ndax état bi jël na ci engagement muy président muy l'ancien premier ministre muy médiateur de la république jeunes yooyu bañ xalaat ne kaddu kilifa fi mu ne ci réew mi kon nag du nekk loo xam ne dañ la ko wax ba pare mais soo delloo mu nekk léeboon ak lippoon maa ngi ko ciy lancé appel mhm. comme ñu ngi wax ci waxu liggéey mhm. di wax ci waxu premier mai waaw <laughs> moi je pense que euh, langage de vérité c'est important pour un xam nga man dama lay wax Kagame mooy sama président. waaw kooku moom dëgg rek lay wax. <laughs> même bu man dama jàpp ne. bon je pense que wa wax dëgg. Mm-hmm. mais lii day ubbi une porte. moo di comme commencé nañ wax dëgg nañ continuer ci wax dëgg bi. ce n'est pas normal que effectivement xaalis bi yëpp euh, di dugg euh, ci ay fonctionnement fu investissement bi di des ci source suñu xaalis bopp mais y a parce que dama mos a dégg enseignants yi ni ñoom boo xayma téeméer bu nekk si effectif yi ñoom juróom-ñaar fukk ak lu teg lañu waaye bu ñu xoolee masse salariale ñoom fukk ak ñaar lañ ci am kon kan mooy lekk xaalis bi. xam naa ni bu bu santé ñëwee ñoom ñooy deuxième corps bi nga xam ne day jël aussi un peu lu bari bu ñu génnee policiers yi ak yooyu. Mm-hmm. Euh, donc problème bi moo di euh, on a un réel problème dans ce pays euh, gis nga au début des années mille ñun génn woon nañ fi benn problème parce que dañuy étudier ñun santé di xool euh, nombre de sages-femmes ak infirmier bi ngay am par nombre d' solo selon l'OMS soo xoolee ci kayit bi da ngay gis ni nombre bi mi ngi avancé mais ba ñu xoolee ba ci biir ñu bare ñu ñu recruter dugal leen ci poste yooyu ndekete amuñu capacité ba léegi da nga ñëw ni am naa fukki infirmier ndekete ñett ya wala ñeent ñi duñu ñu infirmier mais ñun dañ leen tuddee ni ay infirmier donc ña nga fa nekk di lekk salaire dama koy xayma ci noonu rek am na ci secteur yu bare bare nit ñoo xam ne dañu leen jël et ça c'est la logique de la politique politicienne képp ku ñëw indi sa quota mooy quota bi ñu fi yoon wax démb ci affaire si marché yi quota boobu loolu la amee ci recrutement yi ku jóg indi say say quota ñu jël dugal la fekk yow tu n'es pas effectif da nga gis ay société nationale yoo xam ne képp ku ñëw boo ñëwee da ngay jël directeur yëpp baare leen indi fal sa ay directeur bopp or ñooñu dañuy continuer di leen fay salaire directeur à ne rien faire ou à ne pas faire grand chose parce que hmm. yow politiquement danga dem indi sa yëf donc la politisation de l' administration bokk na ci li nga xam ne euh, yàq na euh, yokk na problème bi nga xam ni euh, masse salariale bi day jóg mais amul benn efficacité hmm. pour le système sénégalais hmm. mais je crois que dëgg tamit bu jotee dañ koy wax nit day def li mu mën Euh, il faut que les Sénégalais se serrent la ceinture mais ñu delluwaat nag ci équilibre. Mhm. parce que li indi affaire bi mooy dérèglement bi li tax ñeneen ñi di revendiquer tamit mooy dérèglement bi. mais serrer bu fekkente ni day demee boor rek. dafa waaw mooy mooy deuxième problème ma lay wax bi li tax nit ñi di kaas. Mhm. syndicat yi nar a jóg c'est que da ngay gis comme li ñu wax ngeen ñi ngeen jàngandoo. am même niveau keneen que di jël parce que ce n'est pas normal que au Sénégal mos naa ko sax benn yoon que quelqu'un gagne 35 fois plus que Sénégalais. or loolu am na fi quand on calcule le SMIC ya y a des gens qui calculent qui trente cinq fois plus que le, le SMIC sénégalais ce sont ces mooy mooy mooy problème bi benn écart de salaire yi nañ ko delloo si waat parce que bu njëkk ba fonction publique ni mu amee amee woon y avait une harmonie nga xam ne fii nga yem deuxièmement ñu bàyyi ñi nga xam dañ leen di recruter te amuñu benn expertise amuñu benn capacité ñu ngi lekk xaalis nit ñi donc suñ ñëwee bu ñu naree dem ci loolu war nañ jël benn audit ba génn fi affaire boobu bu ñu ko amee xam nga Sénégal bu bu justice amee équité am jàmm day am. parce que kenn du fi ñëw di revendiquer te fekk xam nga ni yow lii ngay yelloon li ko indi yëpp frustration yi moo indi problème boobu. dafa am na syndicat. oui bon je, je sais pas parce que am na yu bëri yu yu yu yu jib. Mhm. bon man ne damay rassuré wu parce que d' ailleurs euh, un de mes directeurs vient de m'envoyer un message pour mu dire que. bon mën nga fàttali ne yow au moins tu n'as barré aucun directeur depuis que tu es arrivé quoi bon ça me fait rire bon c'est le secrétaire général qui me rappelle un peu à l'ordre par un message quoi bon enfin c'est pour dire que en réalité loolu yëpp c'est c'est pas forcément euh, quelquefois mën na nekk ay loo xamante ne ay ay vue de l'esprit rek la mais man damay. non man mën naa la tuddal société bi de. <laughs> waaw d' accord mais man mais man mais <laughs> man bon comme <laughs> a pas du tout le but. man bëgguma sax xam. mais en réalité je me le président dit. xam nga dama ciy sawar parce que euh, dama am honneur liggéey ak président de 2012 jusqu' à 2016 dans son cabinet donc euh, euh, xaw a mel ne lu lu fréquenté. Euh, méthode de travail am xam nu muy liggéeyee xam peut-être état d'esprit am tuuti c'est un homme extrêmement pragmatique euh, et très souvent buy wax benn affaire boo buggee boo buggee des ci forme bi rek peut-être yenn saa yi fond bi li mu bi wax sax di doo ko xam parce que voilà exactement ça c'est son caractère à lui peut-être euh, sociologue yi mun nañ mun nañ gën a percer son caractère man loolu laa gis c'est un ingénieur qui est hyper pragmatique loo ko jox day calculer tak tak ne la chiffre bi lii la ak lii ak lii lii c'est pas rentable lii c'est bon pour nous lii mënul dem lii mënul jàll. donc man li ma liir ci ci mbir mi mooy d'abord souvent dina waxtaan na pendant deux heures ak syndicats yi ñu bëgg ñu tënkal wax ji ci dix minutes. certainement aussi que li mu wax ci ginnaaw am na leen lu intéressant lu ñu indiwul. man loolu déjà mooy sama premier problème est-ce que lii rek la ñu waxtaanee. waaw mais on peut bon, non xaaral ma ñëw non ma Maodo Lamine bu ñu fàtte mukk nekk il y a deux ou trois ans on a fait la révision du code général des impôts tous les Sénégalais et les syndicats y compris ont crié ñëw tàccu lu tax parce que justement on avait baissé un certain nombre d'impôts pour pouvoir permettre au Sénégalais d'avoir un, pouvoir un meilleur d'achat. pouvoir d'achat donc seen panier gën a élargir forme d'augmentation de salaire donc ñu wàññi li nga xamante ne moom lañ daan lañ daan retenir à la base ba pare boole ci ñu couplé ko ak yeneen forme de loi yoo xamante ne elles sont plus douces pour la société euh, loi boobu am na ci benn boo xam ne Jean-Pierre xam na ko bu baax a baax mooy loi sur la baisse des loyers quoi qu'il advienne ak nu ñu ko mën a appliquer c'est une loi problématique oui mais hmm, d'accord mais non bi ak li mu joxe ak nañ ko appliquer lépp mën nañ ko étudier mais man damay wax loo xamante ne en tout cas c'est réel esprit bi quoi esprit bi mooy liggéey nañ ko hmm. travaillé nañ ko sur la table indi nañ ko assemblée nationale jéem nañ ko appliquer au moins c'est pour l'intérêt de consommateurs l'intérêt des sénégalais euh, baisse des impôts bi c'est effectif le le maintien de de de des denrées à un certain niveau c'est effectif nekk ñu sax ci inflation daanaka ci déflation la ñu nekk mais boo ci bëggee boole yow nga nga wàññi recette état bi ba pare li président di expliquer bëgg ci boole di yokk ay salaire ak yooyu yëpp man xaw ma ndax wax ji naka lañ koy woddee ba mu ba nit ñi man ko comprendre. Hmm. simple na. Hmm. c'est peut euh, euh, xam nga xam nga bon ingénieurs yi généralement ils sont un peu comme on dit brut hmm. de décoffrage. da ngay xam nga donc c'est un peu langage pragmatique et et et, mathématique quoi euh, man noonu laa gisee mais jàpp naa ne. président ak li mu def ci sociale yëpp. franchement gisuma. loo xamante ne war nañ ko fi mën a indi présenter ko fi comme euh, un bourreau des travailleurs wala yooyu ko Hélène xam naa ni ça vous démange de répondre mais <laughs> temps bi. non dinaa ko tontu ci beneen ci <laughs> ci bii di ñëw. ci ko daal dama ci naroon indi sama xalaat ci li Fatou débat apparemment. non non parce que moi je les travailleurs. Jean-Pierre oui Jean-Pierre. Jean-Pierre faut arrêter la parole ici. je. <laughs> man dama ànd li président de la république wax parce que itam euh, dafa mel ni dafa bëgg indi eeru dindi masla wax na loo xam ni boo interrogé woon sénégalais yu bari dañ ci d'accord parce que euh, travayeur yi ñi ci ëpp solo mooy ñi nekk fonction publique or la qualité di service publique maanaam li nit ñi di xaar ci éducation di xaar ci santé amuñu ko grève en permanence problème en permanence te du ñu dénoncer loolu. te grève yëpp ngir yokkute koppar la la gën a faral. mais en mais en plus de ça c'est que bu amee augmentation de salaire wala seen euh, seen revendication à la limite day mel ni corporatisme la maanaam dafa yem ci ñoom mais engagé wul société bi te am nañu seen biir des travailleurs yoo xam ni waruñu fa nekk. mais dañ leen politiser mais ñoom ñu toléré ko hôpitaux yi am na pourcentage boo xam ni ci recettes yi waxuma ci bénéfice yi recettes yi ci ñoom la jëm mais quand même il est temps que ñoom ñuy prononcé wu ci yenn problème yi am ci dëkk bi li président def léegi dina tax ñoom ñu ni comme ñun yaa ngi ñuy tere ñu yokkal ñu léegi fépp foo xam ni gis nañ fa yàq-yàq dinañ ko euh, dénoncer jaral nañu ñu grève ñu dem marche bu boobaa peuple bi dina comprendre Euh, mu ngoog Amadou. waaw Mamadou Lamine je pense que nga baal ma rek ma yokk ci benn affaire. Mm. man je pense que le président mënoon na waxee leneen lu dul euh, du leen yokkal salaire yi je pense que amoon na ay points yu gën a essentiel lu dul lii di yokk salaire ndax syndicat yi boo déggee yenn saa yi ñu wax ci jafe-jafe ngir seen statut ñu xoolaat ko. lu dul loolu tamit je pense que président mënoon na leen yokkal salaire. du coup que premier ministre comme que dañ koy dindi léegi on va économiser cent quatre vingt treize milliards. <laughs> on mënoon na vraiment yokkal syndicat yi daal. mais quand même 300 milliards de francs CFA jëm ci jëndum oto nag vraiment directeur. mais mais mais xoolal yow yaa relancé bal bi. ah yaa ko yaa ko relancé moo tax il faut ñu wax. un million de vérité mooy un million de vérité daa tegal foofu sa baaraam ne leen dinañ ci ñëwaat. Ah. Euh, li moo nekkoon seen euh, pàcc bu njëkk <laughs> jëm ci wàllu actualité dañuy soobu ci ñaareelu pàcc bi muy aali kala ji mu bés bi. Mm-hmm. amalu Diaw ñu dem ci li nga xam ne moo di temu bés bi jëm ci li nga xam ne mooy taxe ndax njiitu réew mi daf ne dafay yokk taxe jëm ci wàllu ciment. loole nag ngir mën a jëfandikoo koppar yooyee euh, tabax li ñuy woowee logements sociaux lu po lu toll nag ci cent mille logements sociaux ki nga xam ne moo di njiitu réew mi annoncé na ko ngir nag ñi nga xam ne ay ndaw la ñu raw rawatina eh, ñiy door soobu ci liggéey mën a eh, jotee ci dëkkuwaay dëkkuwaay nag doon loo xam ne eh, jamono ji ñu mu teree nelaw bëri nañu lool ñu dem ci élément bi Amadou Dia. je pense que waa comme ni ko. waaw je que comme ni ko waxee rek lii di li li nga xamante ni moom moo di lii di dëkkuwaay ci biir réew mi moom njiit réew mi Macky Sall xamle woon na ni dina tabax lii di ay logements sociaux lu toll si téeméeri junni léegi nag boo moyul nag li ñuul ci sew mi mooy prix ciment bi dafa nar a yokku ñu war coon ci mbedd bi waxtaan ak askan wi ñu yëkkati ci ay kàddu. déjà nous sommes dans un pays pauvre ku ku nekk boo sañoon di nga tabax sa kër ah jënd moins cher au moins parce que ciment bi déjà ñun fii on produit ciment fi ñu ko produire au Sénégal on n'apporte pas donc au mois na gën a oyof sax pour euh, ñi bëgg a tabax am bëgg a tabax tabax. waaw léegi bu chéré saraam bu day métti tamit si ñi nga xam ne am nañu as tuut nag bu ko tabax ñu am terrain am ñoo xam am terrain mën nañu tabax parce que non pas de sous mais boo amee nag affaire de cher là ce sera un peu difficile. waaw suñu suñu sañoon ñu ñu xoolaat euh, décision bi quoi su fekkee ne dañuy def euh, ay choix def ay ay logement mais nga xam ne c'est seulement pour une partie de la population nga xam ne lay répercussion bi ñëpp ñooy fayandoo euh, day doy waar quoi su fekkee ne et su fekkee ne dañu def. Euh, yokk prix ciment bi sur une durée de combien de temps lay nekk par rapport ak financement boobu xam nga ñu xoolaat ko noonu yëpp quoi mu bañ a répercuté wu sur une euh, longue durée nga xam ne nit ñi dañu ko ni di fay cher alors que même montant nga xam ne moom lañ soxla pour euh, logement yi mat na mais ñu xool affaire bi fan la jëm exactement quoi xam mu bañ a nekk daal loo xam ne voilà nit ñi dañu ko ni di fay te sans pour ñu maîtriser ko carrément. ciment war ciment dafa war a gën a wàññeeku war a du yokk. ah parce que ciment bu yokkee ah parce que euh, naka la nit ñi di tabaxee ah salaire yi euh, bëri bëriwul ba nga xam ni saa nit ñi dinañ mën a tabax dinañ dinañ mën a jënd ciment di ko di ko di di kii. ci ciment daa waru yokk quoi yokkute dafa warul am si benn côté. ñun askan bi nuñ ko gisee noonu SA dèjà yi dañ ko waroon bàyyee noonu quoi oui buñ ko bàyyee nag am na ñenn ñoo xamante tamit ne ñu ngi ci àll bi seen loxo jotul seen ginnaaw ñoom tamit bëggoon bëgg nañ tabax même bu fekkul sénégalais yi tamit 100 pour cent ñoom tamit amuñu ci am na sénégalais yenn yoo xamante ñii tamit dañ fi am am na ñenn yoo xamante sénégalais yoo xamante ñu ngi ay villages yi. ñenn ñi tamit mun nañ la wàññil pour ciment bi quoi. yéen a logement lu baax la am na yenn Sénégalais yenn yoo xamante tamit pour ñu mun see gis seen bopp quoi pour tamit ñun jeunes yi xam nga rek am na jeunes yoo xamante tamit seen loxo tamit jotul seen ginnaaw loolu moo tax tamit mun nañ cee am prendre temps nañ ko teg ci ay conditions yenn yoo xamante conditions yu rafet daal woy loolu moo tax. xam nga wala su fekkee ne dafa am leneen loo xam ne daf siy juste ndax juste rek pour cent cent mille logements la ñu soxla ko am ko ñu arrêté. wala dañ koy def sur une longue durée muy muy continuer quoi exactement loolu daal mooy souci bi te suñ ñoon mu nekk loo xam ne dañ koy alléger pour pour ñëpp daal voilà mu bañ a continuer pour population parce que charge yi bëri na xam nga te nekkul loolu kese mooy priorité bi quoi mën nga am ay charge par rapport ak ay euh, comment dire euh, bëgg-bëgg kër ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñoo ko soxla xam nga mais tamit euh, mu nekk loo xam ne wax dëgg yàlla su fekkee ne benn cent mille logements kese la ñu fay euh, ciment bu cher muy dem rek moom jar. voilà donc mu nekkoon baatu waskan wi ci li nga xamante ni moom moo di dëkkuwaay yu njiitu réew mi nar a tabax waaye li ñu ci sommi comme ni mu ko waxee sànq rek mooy mbiru prix ciment bi nga xamante ni dafa nar a yokku am ñi nga xamante ni ànduñ ànd nañ ci projet tabax ay logements sociaux waaye. nee ñu waruñu yokk li nga xamante ni moom moo di prix ciment bi ndax Sénégal am na ay cimenterie fii ci biir réew mi. Hmm. laaj bu njëkk bi ci euh, Mamadou Kassé la jëm euh, moom il est directement concerné par la chose comment l'État compte procéder euh, ci mbir mi la. jërëjëf Mamadou Lamine bon xam nga soo ne comment l'État compte procéder. waaw déjà da may tënk ci sama tontu c'est-à-dire da may da may limité. Hmm. parce que aussi man je ne suis pas porte-parole du gouvernement je ne suis pas le porte-parole du président de la République je suis le directeur général de la SNHLM. qui est concerné bon, par xaaral rek le te tamit bugguma jiitu. paaka ci mbaram te man dama am kilifa Abdou Karim Fofana mooy sama kilifa parce que moom mooy ministre de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique te am naa yaakaar ne nit la koo xamante ne il est jeune il est ouvert. te bis bu ngeen toogee poser ko question yi dana leen tontu ni mu waree. il a refusé de venir sur ce en tout cas. Euh, ce que ce que je dis. non nee na dina ñëw beneen ce que je dis ce que li ma jàpp mooy euh, bis bu nga xamante ne am na tontu bu wóor boo xamante ne war na ko rotal ci askan wi yow xam nga ne moom bokkul ci ñi nga xamante ne dañoo ragal un plateau de télé wala yooyu mais quand il faut travailler avec l'opportunité mais li ma bëgg a rek mooy lenn. mooy mënatuñu produire du logement sans am méthode te président indi na méthode d'abord ci plan Sénégal émergent depuis sur benn rythme de construction de logement boo xamante ne daf ko war a gën a accélérer gën ko organiser ba pare en finalité il faut que sénégalais yi xam ne c'est pour que prix bi mën a wàcc pour ñi nga xamante ne war nañoo jote ci logement yooyu mais damay commencer juste benn élément comparatif en France quand on a créé le revenu minimum d'insertion muy le RMI c'est euh, l'ISF mooy impôt sur la fortune foofu lañ ko daan prélever pour que muy mën a financer le RMI donc lu nekk rek dafa am dafa am symbolique bu koy def il faut pas oublier kon a kon a qu'on a quand même fait voter à l'Assemblée la loi d'orientation sur l'habitat social mmh. qui a été voté à l'unanimité à l'Assemblée nationale député majorité ak opposition confondue deuxièmement le président dafa am un objectif de création de logements cent mille donc à un rythme de création de vingt mille par an nu muy demee su nee taxe sur le ciment dafa war a am mais taxe sur le ciment dafa war a am bu may bu amee dafa am lu mu war a jëriñ amoon na benn fonds bu njëkkoon boo xamante ne il était logé non xaaral incidence ci prix dara lu bees c'est-à-dire boo il faut ñu interroger aussi suñu histoire u dëkk hmm. y avait un fonds qui s'appelait le FAYU ñoom Tata xam nañ ko le fonds d'amélioration de l'habitat urbain qui était logé au niveau de la BHS yeneen source la amoon yoo xamante ne moo ko daan alimenté mais fayu moom moo daan permettre suñ daan def ay aménagement mu jël en charge les VRD les voiries réseaux divers parce que tey da ngay gis ñu jaay la terrain boo xamante ne doo mën a am ndox doo mën a am assainissement euh, pour xëcc pour xëcc les VRD c' est tout un problème parce que justement on insiste sur le prix fàtte ay éléments yoo xamante ne sont des éléments factuels mm-hmm. loolu président bëgg ko euh, ñaareel bi moom mooy tey pour affaire bi mën a woyof il faut que ñu agir sur le foncier il faut que ñiy tabax secteur bi attractif pour ñoom parce que ñooñu ils y aussi pour gagner de l'argent il faut que jumtuwaay yi nga xamante ne mooy jëm ci tabax bi ñu mën leen taxer investiraat leen ci biir tabax bi pour que mu mën a def la péréquation qu'il faut pour après à la fin ñi war a mën a jot en moyen ñi war a mën a jot en plus ñi war a mën a jot en bas ku nekk jot ci prix ba nga war a jotee donc mbir mi. Mhm. mbirum organisation la léegi nag loolu esprit bi mën naa ko wax fii. Mhm. parce que jarul laam-laame loolu man je je le comprends dès que le président le sort. Mhm. mais le mode opératoire le modus operandi ak ni ñu ko war a doxalee ak nu mu war a doxee ak taxe bi ñaata la ak ñaata lay impliqué ak fu muy dugg fan lañ koy loger ban banque lañ koy téye ak nu mécanisme bi doxee. kooku dama lay bàyyi damay bàyyi primeur bi. kilifa yi ñu wàcceel la ko. très bien Jean-Pierre. je pense que euh, président. c'est un homme très intelligent boo gisee ni mu aborder le problème de la hausse sur le ciment il dit que c'est pour financer les logements sociaux et la création d'emplois. Comme ça, ça, ça vous convient, vous? Non, cette, la manière dont il a dit. Formule. Maintenant, comme il a dit, son intelligence a fait qu'il n'est pas euh, parti sur des propos qui peuvent euh, être techniques. Parce que vous avez ce qu'on appelle différents utilisateurs. Il y a deux types d'utilisateurs du ciment. Il y a domestique et il y a celui des infrastructures. Le domestique, c'est celui qui va à la quincaillerie. Donc les infrastructures, ce sont les plus gros euh, consommateurs de ces produits. Donc euh, infrastructures privées ou publiques. Alors, et ensuite, il y a la procédure. pour un prix il faut d'abord une structure de prix euh, un cadre qui s'appelle le Conseil national de la consommation fa lu ñuy waxtaanee avant ñuy def augmentation de de de des prix gaa ñi ñëw ak seen structure maintenant ce n'est pas seulement euh, fa lu ñuy jëlee xaalis pour habitat social parce qu'il y a ce qu'on appelle le FOGELOC le fonds de garantie des logements sociaux qui a été mis en place pour ça. Alors, à ce niveau-là, ou en dehors de la fiscalité, mais les 10 000 logements sociaux war nañ ko mën a xayma si on dit y a milliards x mooy jóge ci fiscalité bi x jóge ci euh, caisse de dépôt et consignation ou des opérateurs télécoms qui font des d'immenses euh, profits donc loolu yëpp mooy bokk ci li war a financer logements sociaux mais euh, ni ñu koy liggéeyee du waxul ni c'est unilatéral c'est une taxe qui va s'appliquer à tout le monde il a dit il va y avoir une hausse du ciment mais fan lañ koy euh, fan la ñuy tape taxe yi moi j'aurais en tout cas suggéré que les les les les les, les techniciens mm-hmm. aussi bien du ministère des Finances que d'autres secteurs puissent voir la part imposable aux gros utilisateurs et laisser le consommateur parce que le consommateur bu ñu yokkee mooy ki nga xam ni dafay def extension ci këram pour euh, njabootam mbaa ki nga xam ni dafa bëgg a ubbi benn boulangerie ndax DER finance ko wala atelier couture donc mu yooyu nga xam ni déjà financé nañ ko pour créer emploi seen charge yi buñ ci dindee li nga xam ni ciment bi daf ciy jóge day metti ci ñoom donc ñooñu war nañ leen a mën a mhm. bàyyi mais sama problème mooy lan moo tax ciment lan moo tax Euh, ñu war a taxé entreprise yi nga xam ne ñooy defar simon te mu am yeneen société yoo xam ne comme ni mu ko junjee sànq société téléphonique yi nga xam ne ñi def profit yu mag a mag a mag ak yeneen ak yeneen yoo xam ne am nañu koppar lu tax ñu tànn ciment te tànnuñu ñooñu wala njaal la rek ci euh, solution boobu fa bon dama am ñaari position ci problème bi mhm. xam nga pendant la campagne présidentielle ñun caucus femme leader dañu ànd ak euh, institut ak famille bi ma créé ak ENDA ak euh, Jamra ak Africa Jom on a campagne pour quel président pour la, la famille, famille sénégalaise, ci suñu campagne boobu un des points sur les treize moo doon l'habitat mm -hmm. parce que gis nañ ni tous les problèmes sociaux promiscuité bi moo indi les questions de violence moo mhm. indi -hmm. un est à la base en oui. tout cas d'un certain nombre de problèmes dans ce pays kon su président jógee ni dafay euh, jublu ci habitat social nous on le félicite pour ça parce que c'est en tout cas ça rencontre euh, un des treize points de préoccupation yi ñu amoon ci ban président moo gën pour le Sénégal mais deuxième problème mooy naka lañ koy defee. naka lañ koy defee je crois que responsable consommateur yi génn na génn na ko parce que ñëpp yamuñu doole. Mm-hmm. est-ce que dañ koy maaseleel ñëpp euh, directeur SNH wax na aussi ni il y a plusieurs fonds possibles. xëy na ciment bi benn la quelle la marge de la taxe bi. xam nga xay na bu ñu ko waxtaanee bu fekkee taxe ba parce que bu fekkee lii génn ci ciment dafa bari il faut suffit ñu yokk ci tuuti rek. dana am lu mu mën a jëriñ. yaa ngi wax société de télécommunication ñoom nag ku jóg tàppe si ñoom parce que finalement sa li ñu leen sas aussi dafa bari mais je pense que ce sont les techniciens de ce qui vont voir les structures de rentrée financière pour xam bu nekk fan la war a def donc euh, posé na acte boo xam ne ñëpp koy wax waaw. mais ensuite deuxièmement mu commencé wax taxe rek parce que Sénégal yi képp koo xam ne xaalis dafa nga génn sa poche parce que nit ñi dañuy sonn ça c'est vrai aussi mais il faut que en un moment donné ñu am fan lay jóge mais li ma ci important moo di kon communique et qu'on explique le problème mu président comme nee na ingénieur la du wax moom day jëf mais du wax en tout du y a un déficit d'explication ñàkk wax boobu moo indi jafe-jafe ci loi loolu laa dama ne ñàkk moom du wax mhm. ce qui fait que day poser problème à un moment donné. Mhm. mais je pense que les sénégalais sont très raisonnables su fekkee ne wax nañ leen lu yane lu yanu maanaa daañ ko mën a nangu. Mhm. je crois qu'il faut saluer en tout cas le principe parce que xale yi ñun liñ génne woon lu tax xale yu bari takkatuñu jabar lu tax biir famille yi mais c'est vrai il des jeunes ils ne peuvent pas parce que bu il faut que ñu mun a bedd bañ génn seen jabar mm-hmm. donc euh, violence yi am viol yi am ci biir kër yi yooyu yëpp promiscuité moo ko doon indi mm-hmm. donc premier élément buy indi sutura doomu aadama mooy effectivement habitat à condition aussi que habitat boobu su bu génnee ñu bañ ko jox seen i ñooñ aussi. parce que SNH la dafa fi nekkoon pour vraiment. ñu nga xam ne seen loxo. solutionné woon problème mais dafa mujj dem ba. ñi amul moyen. il faut nga egg d'un certain niveau de revenu pour mën am SN HLM. Mm. bu njëkk ba SICAP lañ defoon loolu. HLM mën nañ ñu mën même SICAP sax dafa amoon ay logement pour des célibataires mm. nga xam ne mën nañ fa toog bu yàggee ñu mën dem on avait quand même une bonne politique d'habitat mm. au départ boo xam ne permettre woon na ku nekk mën si gis sa bopp ñu dem ba affaire boobu yëpp yàqu. léegi nag euh, président li mu def baax na. mais ciment bi li kiy wax dëgg la aussi parce que dafa am contrat day dafa am benn problème buñ ne dañu baisser les prix du loyer kay tabax këram nga ne ko da nga koy yokkal ciment ba kooku nan lay mën baisser prix du loyer mais dans même temps euh, pour revenir si problème bi ñu amoon antérieurement dafa am loo xam ne responsabilité état la mhm. bis bu état defee euh, ñun li ñu gëm bu état defee logement yu bari le la la kii le loyer du privé la bi nit ñi def particulier daf dafay dafay wàññeeku. parce que parce que concurrence bi donc su ko defee xëy na dina metti dans un premier temps chaque année vingt mille logements donc les Sénégalais vont se serrer la ceinture pendant cinq ans. à condition qu'on puisse sortir. que mu bañ dévier wu comme li fi am ces dernières années ñu mujj ko gis euh, sikaab yi ñun xam nañ ko. Euh, les gens qui étaient au pouvoir seen ay ñooñ lañ ko doon jox da ngay gis benn bu jël dix kër. wala benn nit bu jël nangami soo ko fi waxee moom xam naa def naa ma loolu amul mais loolu am na ñun xam nañ li xam ci biir dëkk bi mm. donc ñu fexe ba ki ko war am am ko keneen di mën bañ di cumuler bu fekkee dañ ko def pour ñi nga xam dañu ñëw doole mm. euh, mais laaj na mu gën a expliquer nit ñi. Mhm. xaw ma où sont ces services de technique. nekk ingénieur kese ingénieur c'est très bien. voilà mais communiquer aussi. Mhm. parce que sénégalais boo leen waxee lu ñu mën a dégg rek daañu ko nangu c'est manque d'information bi mooy poser problème bi. Hélène bala may ñëw ci yow damay dem seeti les internautes d'abord après mu ñëwaat ci yow ndax bëgg naa la laaj ndax 100 000 logements c'est faisable en 5 ans. alors Emeka sujet bi sujet bi ça se voit que intéressé na Sénégalais bu baax parce que tout ce qui touche à à aux constructions wak yu demee noonu tout le temps da ngay gis que nii dañ ciy intéressé wu et voilà ñi ngi gis ay de depuis sànq kii nag mi ngi wax rek ne euh, comme dañuy laajte solution. moom mi ngi ne solution bi mooy ñu baisser le train de vie de fonctionnement du fonctionnement de l'État pour financer les logements sociaux donc loolu mooy avis ki nga xam ne moom moo di Mamadou El Hadj Daf euh, depuis euh, Facebook donc kii nee na quand l'État veut prendre de l'argent sur les populations c'est sur la taxation des denrées d'utilité courante l'eau le riz le sucre le ciment l'électricité le lait etc Ainsi, un, un franc prélevé sur 15 millions d'habitants, euh, faites le calcul et vous comprendrez. donc moom daal lu muy wax rek mu ne euh, euh, état bi saa yu bëggee. am lu mu fas yéene wàññi rek daf koy daal di jël ci li nga xam ne mooy denrée première nécessité yi yi nga xam ne mënul ñàkk ci ñi nga xam ne ñooy dund si dëkk bi donc euh, kii mi ngi wax ni cette décision est tout simplement une justification d'une hausse du prix du ciment incompréhensible dans un état où il y a trois cimenteries donc ñu ñëw fii si WhatsApp bi fii depuis lors ñu ngi fii jot ay messages yu bëree bëri donc kii mi ngi wax ni il devrait plutôt réduire la taxe pour permettre aux Sénégalais moyen le moyen d'avoir le moyen sûrement il voulait dire de construire leur projet de maison apprends-nous la pêche ne nous donne pas des poissons hmm. moom daal nee nañ ñu jàngal ko nu muy nappee <laughs> te bañ ko may de ñu koy ñu koy may jën voilà kii aussi bi ngi wax ne ce qu'on n'a pas fait en sept ans on ne peut pas le faire en cinq ans pourquoi toutes ces initiatives n'ont pas été annoncées durant la campagne réponse bi nag damay bàyyi sama chroniqueur yi. réponse bi ñu bàyyi xëy na. Hélène ñu wax si. Hélène de am na point de vue si question bi euh, point de vue bi li ci jiitu mooy lu cent mille pour sénégalais yi nga xam ne seen doole. Ah, soo nee habitat social da ngay wax ñan lañ koy jagleel. Hmm. mooy ñi gën a néew doole maanaam seen doole bëriwul hmm. njaboot gi néew doole loolu benn sénégalais munu cee bañ a ànd ak foo mënti bokk ak foo mënti féeti te yéene boo xam ne la comme ni ko Fatou waxee parce que njaboot gi bu amul fu mu dëkk nit mën nga ñàkk lu ne ba mu des fa nga dëkk ak looy lekk ak looy muuree sa yaram loolu mooy la base donc bu ci jógee après sept ans mu ni def koy daf ko bëgg jëfee te ñu ngi koy campagne gis naa assemblée bi démb député bu jóg rek boole nga ko ci sa ci sa intervention mais fu ñu ko bëgg tibee hmm. ci poosu góorlu boobu nga xam ne moom la ñu xalaat ne war nañu ko taxawu ba mu am kër donc man d'accord naa si ni programme bu baax la monsieur directeur te bëgg naa bu baax ñu xool SNHLM ci programme boobu naka la koy nguur gi di delloo cër yi nga xam ne moom lañ ko xamee woon taxoon ba sénégalais yi gën a néew doole di mën a jote si kër yi man dama cee bokk si ñi nga xam ne gis naa sama ay waajur bi ma yar am këram HLM te à l'époque du woon sax fonctionnaire boo xam ne euh, euh, kii la woon nu mu tudd bu bu bu am statut bu mag. ñu koy def wa fexe leen ngeen yaatal ko te jëlu leen dërëm ci poosu góorlu ba da ngeen yéen a ngi koy def ba léegi loolu lañ bëgg président jàppale leen si doole leen si ba ngeen mën ko jëfe te du diis ci d'accord naa ciment bi buñ ko naree taxé mais fuñ koy jëlee ban ciment bu dee ciment yi nga xam ne dañ koy jaay grande société yi nga xam ne ñooy ñëw fii di tabax si yenn affaires yi te mu bañ am répercussion ci sénégalais bi d'accord nañu ne nañ ko fa jëlee ji mais ciment sénégalais bi bi ñuy consommer am ñetti cimenterie fii ci dëkk bi. Mm-hmm. war a wàññeeku. ñu war a wàññi doon xalaat ne man de ba may xeex pour dàngoot maa ngi koy wax ci kaw waa Dangote ak may dégg ak ñu bëri. Mm-hmm. dàngoot ba mu demee ba am tolof tolof yu mag ci ñuy xeex ba mu mën a démarrer la bokk te liñ ci doon jiital ci xeex boobu mooy dina am impact boo xam ne ci sénégalais yi. Mhm. dina tax ba seen tabax wàññeeku. Mhm. mais boo ñëwee tey ne damay yokk ciment bi pour mën a génne boobu xaalis man xalaat naa ne am na yeneen levier. Mhm. tey exonération fiscale yi tey ëpp na 500 milliards 580 et quelques milliards laa dégg ñuy wax. ñu koy exonérer ay société ak ay nit ñoo xam ne wax nga sànq ne impôt sur la sur les grandes fortunes. la ñu jëlee woon France pour financer. mais est-ce que exonération bi aussi bu ñu ko bàyyee du décourager les investisseurs non non dama ne nañu jël ci exonération boobu. Hmm. ñu dugal ko si foofu. waa loolu niche boobu niche la non ça veut dire loolu ñuy exonéré bi mais nañ ko wàññi nañ leen fay looloo xam ne au moins dinañ ko mën a alimenter maanaam levier boobu nga xam ne moom lañ hmm. bëgg defaree. Hmm. aarama dékkali rek. pour man y' cinq cent quatre vingt et quelques milliards yoo xam ne exonéré nañ ko. Ablaye Wade li mu xalaatoon def RDIA redevance pour tabax aéroport bi mooy aéroport. Euh, Blaise Diagne Diass bi Blaise Diagne di di ko jël ci billet d' avion nañ xool autoroute bi nga xam ne ñu ngi fay ñun tous les jours dix mille fois saa yoo rombee ñu ngi lay laaj koppar nañ ca teq ci ticket autoroute bu nekk buñ ca dindi woon. cinq francs wala dix francs dajale ko mu nekk ñi am doole mën a yéeg autoroute di fa jaar ak di fay ñu fin am na ay leviers les banques assurances nga xam ne non moi je pense que y a des leviers qui sont là yoo xam ne nouvelle taxe parce que cette taxe là existe déjà am na fu muy dugg dans le dans le système il faut hmm? trouver de nouvelles taxes non mais Fatou taxe sur le ciment boo xam ne day yokk njëgu ciment bi pour góor góorgóorlu sénégalais bi nga xam ne. mais ñoom nee nañu ciment bi du yokk man loolu moo. incompréhension boobu laa xaw a. na na nañu leeral. yokk taxe yokk ciment daal sénégalais yi tey mënuñu koo comprendre. te nga ne da nga bëgg favoriser habitat social. Mm-hmm. parce que levier boobu ngay def. sénégalais ba nga xam ne mën na góor góor lu jënd quelques saako ciment am def ñaari. ñaari ñaari ñaari ñaari néegam xëy na dëkkuwaay bi Dakar la posé problème mais à ñu ngi tabax quoi. pour man a y a y a c'est-à-dire euh, xëy na peut-être même je dirais débat bi ñu engagé ni euh, prématuré na parce que benn élément rek lañu indi en appréciation te élément bi dañ ko for ci koo xamante ne dafa wax muy kilifa gu mag gi ne en tout cas nañu xaar ne ci li ñuy def ciment bi dinañ ko taxé mais xam nga am na lu Jean Pierre wax sànq parce que dafa am niveau yu bëri yoo xamante ne dafay intervenir dans le financement du logement benn affaire bu ngeen fàtte wax bu président wax bu am solo nee na état mayewul ay kër d'ailleurs àdduna sax lañu gisul fu ñuy mayee ay kër. kër kenn du ko mayee kër dañ koy jënd. Mm-hmm. donc bu fekkee da ngaa jóg am yéene yombal njëg bi. Mm-hmm. nga am nag ay jumtuwaay fooy jaar mais il faut nga am ay instruments fooy jaar. Mm-hmm. mënuloo mënuloo xëy ne da ngay jël affaire yi wàññi ko noonu nit ñi di ñëw di jënd ay kër ay 6 millions ay 7 millions te xamoo fooy jaar. jumtuwaay bi ëpp solo ci biir tabax siman la mook feer nekk nañ ci ay jumtuwaay yu am solo. ci jumtuwaay yooyu dañ mi ngi laaj ndax fer bi mën naa suuf si mën naa nekk. Mm. lépp mën naa nekk je dis que mën naa nekk mais xam nga d'abord il faut nga def distinction entre autoconstruction maanaam ka nga xamante ne terrain lay jënd. tabaxal boppam tabaxal boppam ak ka nga xamante ne nii demande logement la. Mm-hmm. on parle de logement donc ce qui est important aujourd'hui bu ñu dee wax waxu logement mooy Elentine euh, am na benn revenu revenu boobu noonu war na cee mën a sukkandiku moom day dawal taxi wala day dawal kaar mais war na ci mën a sukkandiku pour am kër. Mm-hmm. ci njëg bu yomb ni ñu ko ko mën a yombalee mooy maanaam au mu jar douze millions sept millions lay jar te au lieu mu fay ko ci sept million bi xëy na dix pour cent lañ ko ciy laaj muy sept cent mille mu dugal ko en apport la ca des mu fay ko ci fukki at wala fukki at ak juróom effectivement un loyer maanaam koo xamante ne da nga waroon fay luwaas ngay fay luwaasu njënd boo noppee ci luwaas bi yaa moom sa kër te bala ngay dugg ci luwaas bi jox nañ la kër gi mhm. xam nga loolu c'est important mais loolu alal moo koy def ak organisation mhm. te organisation boobu foo bu nekk daf ci war a ñëw jouer rôle mais alal foogaloog boobu lan la doon jouer alal jooju tam warul jóge ci poosu Sénégal yi non dama ne. tey ah mais attends mais xanaa du sénégalais a wax yow a xam nga dama la non mais nañ waxante dëgg c'est-à-dire moi pour moi mm. il faut que ñu mën a am des langages de vérité yoo xamante ne parce que bu fekkee ne dañ koy jëlee ci néew di doole di ko jox borom doole nañ ci ci principe ne kër kenn du ko maye. d' accord nañ ci principe ne état bu góor góorgóorloo war nañoo yombal njëg bi. mais kon financement bi foog ñu xool naka lañ koy tërale. très bien jaar ci jumtuwaay yi nga xamante ne nii. ci yooyu parce que aujourd'hui il faut interroger marge yi nga xamante ne moom la ñëpp di def. ci wàll wow parce que yéen ba tey jii nii nit ñaa ngi jënd ciment mais kenn interroger wul ci major yi. yan marché la ñuy def xëy na consommateurs yi liggéey nañ ci. mais loolu yëpp lu ñu war a lu ñu war a liggéey la xëy na peut-être ay yoon la man donc wax sànni bi duma ci du ma demee noonu. du ma ci demee ak xër dama naan rek sama xel dama naan rek sama xel am na dispositif réglementaire yu am ba pare. est-ce que xam nga ne am na benn arrêté conjoint boo xamante ne c'est entre le ministère de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique et le ministère de l'économie euh, et des finance mm-hmm. boo xamante ne. bépp projet bu nga xamante ni dafa inscrire ci projet yi nga xamante ne état biral na ko wala état dëggal na ko wala état ànd na ci am na ay ay ay taxes yoo xam ne dañ la koy wàññil pour que justement ñu mën a accélérer système construction bi c'est un arrêté conjoint boo xamante ne bu ñu la ci inscrire am na am na taxe yu bëri yoo xamante ne mën naa tëb te bu paree mën na jouer en finalité ci prix ci njëg bi nga xamante ne. moom mooy revenir. Ah, ci consommateur bi ah, te loolu moo ci ëpp solo. non man je voudrais juste euh, laaj monsieur Pierre comme ni mu waxee nii parce que sànq bi ma bi ma wàccee ci mbedd mi wax ak askan wi li leen gën a metti mooy cent mille yooyu ñan ñoo ci war a bénéficier wu. je pense que nga wàññi ciment bi ku nekk tabax moo gën nga yokk dara ñi am. ñuy dul am parce que gis nañu li nga xamante ni moom moo di bourse de sécurité sociale bi président indi fii depuis bi mu ñëwee ba léegi boo demee ci kaw gi ñi ci war a bénéficier wu duñ ci bénéficier wu cent mille logements en cinq ans kan moo si war a jot ak kan moo si warul jot. bon man euh, déjà ni ñu ko tàmbalee liggéeyee wax dëgg yàlla am na benn internet bu wax ni lu ñu deful en sept ans bëgg ko def en cinq ans mais président joxe na benn système mooy fast track. Mhm. mais lépp loo xam ni ñu ngi koy wax tey ci habitat social loyer tout kayit yëpp a ngi fii def nañ ko structure yi war nañ ci mën a liggéey man dama doon xaar ci ministre bu bees bi loolu mu génne ko ñu teg ko parce que volet social bi mi ngi ci plan Sénégal émergent mm-hmm. mais acteurs yi toog acteurs yi mooy ñan mooy ñi nga xam ni dañu def ay coopérative sociale yoo xam ni ci biir même bu ciment bi yokkoo am na taxe yoo xam ni bu ñu awee yoon danañu ko dindi donc duñ ko yëg ci wàll googu moo am itam ñu war a réglementer parce que tey ñu ñu war a privilégier dañoo waroon wax ni sax à la limite cinq yi du ñu agréé benn société bu nekk dans l'habitat social en dehors de SNHLM et de la SICAP parce que ay sénégalais ko moom ñun ñoo ko moom mais promoteur privé yi nga xam ni dañu ñëw ñu di leen jox suuf ñu naan ñu euh, dañuy def promotion sociale kooku dañ ko waroon supprimer donc looloo tax ma ni bu fekkee euh, ki nga xam ni mooy yor secteur bi woo na acteurs yi dina faciliter la tache au président de la république parce que du ñëw wax loo xam ni dinañ ko mën a contester sans argumentation parce que élément yi war comme il l'a fait pour le ciment modus operandi yooyu yëpp ça reste à définir euh, le coût itam parce que en dehors du ciment Euh, professeur Sow Sarr wax na ko nee na euh, est-ce que yeneen matières yi. du du voilà. Mhm. ensuite aussi y a problème de la réforme foncière parce que léegi li ñu soxla ci suuf dem na ba laal tool yi dem na ci biir communauté rurale yi donc. est-ce que dans l'acte 3 de la décentralisation ñu ngi koy wax la preuve tout à l'heure ci benn chaîne de télévision maa ngi dégg waa Diamniadio di euh, yëngal ci wàllu suuf donc je pense que il faut qu'on regarde dans le rétroviseur de ce qui a été fait et qui a été bien fait et qu'on avance et ça amène c'est le même problème de, de du loyer du ñu am dara lañu ñu inventé nañu appliquer la ñu waxoon te itam euh, am na itam ñu prioritaire ñi nga xam ne dañoo yàq seen kër parce que nee nañu nañ ko jënde woon baaxul ñu ngi ci yoon war nañ leen dàmpaay est-ce que dàmpaay boobu du ñu ko dugalaat ci Euh, yenn financement yi pour ñoom ñu mën a autofinancer ñoo xam ni c'est des promoteurs véreux ñu ngi fi promoteurs véreux yi ëpp actuellement ñu ngi joxe ay agrément rek donc ce qui fait que euh, vraiment pour résumer daal. je pense que il faut. xam naa ni bëgg nga tontu balaa ngay tontu ma sof ci benn laaj rek waaw ma sof ci benn laaj. <laughs> Euh, Fatou dafa wax sànq lu solo. Hmm. maanaam euh, ñi nga xam ne. kër yi nga xam ne moom la nguur gi fas yéene tabax. ndax itam du ñu ko jox woy politique yi euh, ñu jox ko seeni militant comme nu ñu ko faral di gisee ci réew mi loolee itam. waaw mais xam nga man pour man wax boobu dafa xaw a euh, xaw a ñagas ci sama bopp parce que en même temps moom wax na wax na mais mais wax na aussi li ma nar a tontu. Mm. Euh, wax na ne man du ma du ma du du ma d'accord ci loolu parce que déjà man aw ma idée wu militant. parce que dama jàpp ne même militant sax sénégalais la euh, bon euh, mais aw aw ma idée wu mili militantisme en tant que tel euh, mais soo nekkee ci société yu mel ne yu ñor ci nga koy xam ci ngay xam ne c'est c'est très difficile ak niveau yi nga war a jaar yëpp pour nit mën a jot ci këram. Mm. pour que mu mën a demee noonu. li mu doon wax sànq c'était important parce que jafewul woon tant que c'était maîtrisable boom démographique bi amuñu ko woon. exode rural bi demeewul ni mu demee woon mbay mi am na lu mu tënkee woon nit ñi dans le monde rural te aussi SNHLM dafa yàgg tabax Dakar ñu musul fàtte beneen beneen beneen gox ci biir nous sommes le seul promoteur immobilier kaay ma wax la SNHLM mooy seul promoteur immobilier je mets au défi quiconque mooy seul promoteur immobilier bi nga xamante ne mun nga ko fekk dans les quarante cinq départements dans les quatorze régions amul beneen promoteur bu ko mën bu ko def en tout cas bu ko defagum HLM avant 1960 la judd ren la am 60 ans 1959 lañ ko créé avant notre indépendance donc HLM moom mag man moom moom maanaam moom ma jiitu ñu ñëw di ci def tey su ma xoolee ne le directeur technique actuel le jeune Eliman Wan bi nga xamante ne ñi ngi tabax immeuble Maristes yi am problème tey C2 la newoon donc c'est des problèmes yoo xamante ne yi ñu imbriqué yi ñu boole. il faut Sénégalais yi jàppale ñu ci pour ni ko comme ni ko Hélène waxee parce que gis naa plaidoyer am am na solo trop parce que c'est un instrument qui est puissant la SNHLM mais c'est aussi un gros mammouth boo xamante ne boo ko bàyyee problème la boo xamante ne mënoo dafay am répercussion yu bëri en terme social boo ko yeewee boo ko yeewaatee di nga régler problème yu bëri te loolu lay def respirer waat aujourd'hui on est sur un projet à Ziguinchor on vient de clôturer un projet à Kaolack nous projet à Vélingara yi ma lay wax ni yëpp daanaka stade réception la gis ngeen ne président ñëwoon na ba Fatick pour inaugurer la cité HLM ministre de Fatick euh, extension tey aujourd'hui on engage Sangara Sandiara euh, ñi ngi ci euh, Saint-Louis donc ñun on est au niveau national nous sommes pas un promoteur boo xamante ne ñi ngi cloîtré dans deux coins de Dakar ak affaire yu demee noonu quoi mais ce que je dis sur les cent mille logements encore une fois pour moi c'est possible mm-hmm. c'est possible bu fekkee ne am nañu méthode te yi ñuy wax nii bokk na ci méthode yi c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un environnement qui permette à l'acquéreur la garanti qu'il faut maanaam taximan bi nga xamante ne njagal a tudd bu demee banque ba tey kenn du ko lebal ndax son revenu n'est pas régulier mhm. ñu mën ko trouver un système boo xamante ne dana ko garantir au niveau de la banque pour que moom mu mën a jënd parce que kër mënul gratuit. waaw monsieur directeur dama bëgg rek balaa may fàtte xam nga wax nga yéen a ci département yëpp. Hmm. loolu am solo la parce que li ma la doon wax. HLM boobu Kaolack la donc HLM dafa dafa dafa dafa national mais ma ji profito am na benn ay citoyens sénégalais yoo xam ne dañ leen grugé Thiès xam naa xam nga war nga xam dossier boobu xam bi bu baax. ma leen di plaidoyer comme yàlla tudd na tey ma ñëw toog ak yow. <laughs> dama la koy wax bu doy waar la. Hmm. koo xam ne HLM la fa toogaloon. ay sénégalais yu sonn mu ñu may dégg waa cees yi nga xam ne dañ am problème. ak seen directeur général baa ngi nii toog ma di ko ko wax. ngeen jàpp ci parce que ñoom xamatuñu fu ñu jëm. te lekkal nañ leen ay millions yu dul jeex. Ah. dama la koy wax rek. pour wax ne. waaw mais loolu di comportement benn nit la xam nga boo ma ko waxee du ma mën a bàyyi noonu parce que après waaw ba ma ñëw ah, waaw ba ma rek. bàyyi moom li ci des c'est des c'est un problème avec un représentant de la SNHLM qui était à Thiès. yaa léegi mais dama la koy wax rek ne sénégalais yooyu ñu ngi toog di xaar pour ngeen jàpp ci. Hmm. ba ñu mën a ñoom retrouver seeni ay droit ah, ak dañu ñu leen euh, maanaam li leen xañ. Hmm. ak seeni xaalis yi ñu jël. lenn la ci des mooy man dama ne ñun yéene bu président am maanaam bu yéene sax dafa nekk programme bu mu teg. Hmm. ne cent mille yeewu génnee na xalaatam. ñun fii lan mooy suñu taxawaay fii ci lii jox askan wi waa askan wi tontu ci wax ci ñu nit ñu waxaale liñ ci xalaat. Mm-hmm. parce que buñ toogee rek ne nañu xaar ba président parce que ñëpp xam nañ président su ne dañuy yokk taxe ciment bi mais dañuy yeewu affaire bi ne rël ci kaw askan wi ñu ni ciment bi kat jóge na nangam ci xaalis parce que actuellement le ciment était rare. ciment bi dafa manqué kenn gisatu ko woon. ñu yokk tonne bi parce que dañoo de xaw ma ndax c'est une pénurie organisée. Mm-hmm. pour que ñu mën a artificiel bu ñu yegg ci fii. yokk nañ ba ñu dem ba mille 65000 francs 60000 francs la tonne. Mm. boo xam ne yeggu ko woon. Mm. kon nag balaa ñuy toog nag di xaar ba affaire bi daanu suñu kaw. Mm-hmm. ñu wax ne nañu xalaat. ñu alerter parce que. Mm-hmm. bu ñu dem euh, maanaam jeter. bëgg am logement sociaux rek mhm. ba gaaj la grande majorité des sénégalais yi nga xam ne du ñu mën a accéder ci logement social mhm. boobu mais dañu am seeni ay dërëm maa ngi jaay caaf ca bopp koñ ba ma bëgg dajale tabax ñu mhm. bëgg maa teg taxe boo xam ne mais liñ ma joxoon sax liñ ma joxoon bourse familiale waaw nga xam ne peut-être moo ma tax am sama taabal boobu ja ko ah mais xam nga loolu <laughs> rayaale rayaale doom ji parce que yaa ngi <laughs> euh, ma ñëwaat ma ñëwaat directeur Astou en dehors du am na ñeneen ñuy def beneen yeneen proposition comme kii di wax ne les Sénégalais veulent vivre comme des châtelains si nos architectes pensaient sénégalais ils auraient fait des recherches sur les matériaux locaux comme le banco la latérite l'argile et pourquoi pas le sable des exemples sont patents au Maroc au Mali et au Burkina Faso donc euh, kii mi ngi wax ne euh, voilà Une question pour le DG Mamadou Kassé. Pour les logements du plan Diakhaï, le président Macky Sall avait pris l'engagement de les octroyer 3000 logements gratuitement. Vous, Monsieur Kassé, nous, vous nous avez dit Euh, vous nous aviez dit publiquement que vous avez 2200 attestations, donc je voulais savoir l'avancement du dossier. Oui, euh, ma jeexalee juste MLK benn question. d'abord commencer par euh, MLK voilà ma jeexalee juste benn parce que aussi dafa poser question ci euh, ci boîte de réception bi la ko jaarale donc moom. mi ngi wax rek ni euh, voilà Mamadou Kassé avait dit publiquement je pense que c'est la même question oui, qu'il a signé 2200 attestations euh, avant les élections présidentielles jusqu'à présent il a donné que 80 attestations très bien bon je commence par je commence par Diakhaye oui. euh, le président avait émis l'idée d'ailleurs a pris la décision que ñu clôturer le programme de Diakhaye parce que dafa commencé yàgg mm-hmm. c'est programme boo xamante ni ubbi nañ ko bu yàgg mu bëri problème il s'est dit que finalement nañu régler problème mu sénégalais yooyu une bonne fois pour tout xam nga loolu yéene la ñun ñu jël ko effectivement les deux mille deux cent attestations vérifiées son signées et seront mises à disposition à Jaxaay mais deux mille deux cent attestations mënoo ko joxe ci benn bis dañu ne leen parce que titre boo koy jox nit dafay fekk nga jox ko ki koy yellool mm-hmm. donc ñun on a avec les autorités municipales ñu jox ñu un bureau à disposition ñu jël du personnel yóbbu ko fa bu ñu demee dañuy jël un lot yóbbu ko signé ko def ko nit ñi présenté wu aussi ñëw laaj seen attestation ñu jox leen ko. Mhm. noonu la loolu mooy procédure bi. ba keroog ku nekk di jot sa attestation. Mhm. mais le problème de. 2200 yi c'est signé loolu ça mhm. c'est la distribution qui est en cours kooku programme boobu clôturé nañ ko tegee na boor je reviens sur lu problème de Thiès ñun dañ dénk ñu am conscience ne lañ ñu dénkoon dañ ko dénkoon ñeneen te bu subaa ñeneen dañ koy jël ci suñu loxo doxal ko. continuité de l'État. voilà donc sur Thiès on avait des soupçons parce que yave avait xam nga récu par récurrence dafa daan am ay lettres de plainte yu daan ñëw ci suñu boor man disposant de mon audit interne j'ai audité l'agence de Thiès. volontairement pour avoir le fin mot de l'histoire. Je me suis rendu compte qu'il y avait des malversations au niveau de l'agence. Donc, naturellement, il y a une personne que mun na doon représentant HLM mun nañ ko tuddee nu leen neex. mais xam nga nit boo nekkee dans une disposition de jublang ça pose problème à tout le monde forcément day am ay préjudices yu muy posé. Mm-hmm. am na sénégalais yu bëri yoo xamante ne posé na leen ay préjudices. comme aujourd'hui 1998 ni ñu tabaxee Mariste man fekkewuma ko. booba maa ngi France di jàng mais bi ma ñëwee tey irrité naa de ce problème là li ci gën a metti maa koy dund. te pourtant dañuy jóg mu mel ne man maa tabax kër yi bëri ki démb ak démb démb alors que c'est des problèmes d'organisation des problèmes de lot technique et tout ça sur lesquels nous essayons de trouver des solutions. mais sur Thiès je dis encore une fois li ma mënoon def man en tant que directeur général c'était prendre mes responsabilités pour que la SNHLM soit partie civile ci problème boo xamante ne ñun dañ ko dénoncer la justice s'est saisie de la question. nit ki ñu mettre ko aux arrêts donc ça veut dire que la justice de notre pays aussi doit fonctionner man mënuma attel sama bopp problème yooyu terewul recevoir naa leen à la demande d'abord euh, je pense que yow ci sa bopp impliquer woon nga yow ak ak ak euh, l'ancien ministre des forces armées euh, Augustin Augustin Tine yéen ñaar ñëpp vous vous Augustin ci boppam moom moo moom moom moo facilité ma gisante collectif bi. ñu waxante ñi ngi jéem li ñu ci mën mais am na loo xamante ne en dehors du droit. mën nga daanelee loolu rek Fatou ñu cërale woon ci waxtu. Euh, jeex na euh. waaw xanaa di di rafetlu rek teewaayu le directeur général de la SNHLM. pour dire que c'est important que quand on appelle les, les autres qui viennent. Mm Le ministre Karim Fofana, je l'ai vu après. Mm -hmm. Bon, il, il, a expliqué, il, a dit la prochaine fois, il viendra. Donc, peut-être qu'il y aura une autre opportunité. Bien sûr. Mais les Amsolo, moi, dit, comme Hélène l'a du ñu war alerté parce que objectif plateau bi mooy sulli problème yi nga xam ne askan bi jànkonteel nañ ko mhm. ba ñi nga xam ne autorités yi euh, ñu bàyyi si xel jéem seet naka lañ koy mën a résoudre mhm. euh, li fi mu se Dieng wax aussi ñoom ñaar ñëpp indi nañ fi des éclairages assez importants parce que ku nekk dans dans ton domaine permettre nga ñu gën a xam li li am mais président war na xam tamit euh, ni Sénégal yi ils sont inquiets parce que ku nekk ña bëgg tabax seen kër ñoo ëpp les cent mille personnes yi nga xam ne ils vont être bénéficiaires mhm. te peut-être seen loxo jotul seen gannaaw mhm. te ñoom tam ils ont des inquiétudes mais en même temps foog xaalis bi am fu mu jóge pour ñu mën ko liggéey su su amee waxtaan am transparence am les sénégalais peuvent accepter problème bi les sénégalais dul accepter moo di toujours ñu naan dañu jaar ci seen kaw euh, bu ko defee naxati nañ leen naxaat leen mais nu pouvons espérer que comme président bi mooy dernier mandam dootul nekk ci euh, kii dootu fi nekk ci président mm. candidat kon mën nañ yaakaar ni acte bu mu fi mënti def ji rek acte boo xam ne la résultat bu wóor la ci war a wut mm-hmm. ndax ëllëgam si biir mu am woy ni buuna amoon way si si Jolof mais à condition que euh, ces agent comme ñoom HLM euh, extra tout le monde joue le jeu Absolument. parce que Sénégal moom tamit dafa xaw doy waar daal c'est un peu complexe Jean-Pierre un dernier mot <laughs> bon c'est juste euh, donc aux gens du département yi yor mbir mi particulièrement le ministre mbirum habitat social ak euh, mbirum habitation location yi na ko yaatal waxtaan ci euh, volet boobu nekk ci PSE moom moo ko war a exécuter na def un dialogue constructif et sain je donne l'exemple simplement de la nouvelle ministre du commerce problème mu pain bi vraiment ñëpp ngi ciy d'accord ñu ngi ciy liggéey te joxe neen di mm-hmm. beneen bi mooy directeur général HLM ici présent ak SICAP dañu war a am un cadre de concertation permanent avec les associations de consommateurs pour que li dal euh, intervention u madame Tine dooleem boobu mu continuer ko def ko feneen parce que topp benn mbir en permanence da koy sonnal te dañ ko soxla ci fépp donc vraiment vous devez recevoir les associations de consommateurs pour un dialogue permanent ak ñuy expliquer itam lan mooy seen non na jël Hélène na jël Hélène mu nekk syndicat am parce que Hélène moom ku mu faral rek doo daal <laughs> ah, la preuve indi na man sama dernier moo sargal ko moom ci ñëwam di bëgg aussi yeneen autorités yi xam ne fii seen plateau la mhm. dañ leen ko jagleel. Mhm. war nañu fi mën a ñëw mën a wax rassurer sénégalais yi boo amee itam xalaat yu ñu am ñu mën ko jottali autorités yi. Mhm. man dama ne ñun d'accord nañu ci logements sociaux je le répète encore waaye ni si ñu mën a dem jële ji xaalis bi. pour tabax cent mille logements sociaux yooyu mhm. bëri na. wax naa ko sànq waxuma sax fonds politique yi institution yi président ci boppam moo ne trois cent milliards pour jënd ay oto mais bu ñu économiser loolu yëpp war nañ ko mën a dem dugal foofu ngir yàlla ñu may sénégalais yi nga xam ne ñu ngi wut kër te du ñu bokk ci ñi sedd sédd cent mille logements yooyu wasaare moom wax na ko ils sont à le Sénégal ñu dooleel SNHLM ndax fépp fu ñu tabaxee ay cité cité yooyu gis nañ ne inondation yi ñu fi doon gis ak yeneen yi amu ko buñ ko wëree seet ko te ñu bàyyi euh, maanaam en tout cas xalaat yokk ciment bi loolu moom ku wax ko wax ko président mu xam ne du décision boo xam ne di sénégalais yi dinañ ko nangu mhm. wala buñ ko nangoo it bu leen ko tegee mhm. dina métti dina métti si ñoom te duñ ko seetaan tamit. très bien loolu pour les internautes euh, Astou. alors MLK damay terminer juste pour récapituler que ni internet yi réagir nañ mais surtout ñi ngi insister si logements sociaux yooyu bés bu ñu ko taxawalee ñi si war a jot ñu jot si voilà et juste di wax que ni il faut faire attention aux promoteurs véreux parce que aussi gis nañ que ni souvent dafay nekk entrave ci yenn processus yi wala yenn projet yi donc ñu ngi leen di jox rendez-vous euh, peut-être après corps bi je crois euh, ñëwaat si seen émission lii donc di remercier ñëpp ñi nga xam ne participé woon nañ si émission bi à travers Facebook WhatsApp et Twitter. Merci beaucoup Astou Dione Amadou Diaw merci. voilà merci Mamadou vraiment kontaan encore ci li nga xamante ni moom moo di jotaay bi donc di sargal ñëpp rek di wax encore une fois de plus Ramadan Moubarak à ñëpp. Mhm. merci. wa kullu amin wa antum bil xayr euh, yal nañu yàlla may ñu woor weeru kooru jàmm. Euh, lépp lu luñ ci jàmm yàlla yàlla ñu ko yàlla nangul euh, yàlla def ci réew mi jàmm di gërëm di sant professeur euh, Fatou Sow Sarr Hélène Tine ci ànd bi ñu àndoon ci émission bi ndax danañu jël pause benn mois pendant le ramadan di gërëm di sant directeur général bu SNHLM ci disponibilité bi ak ni ko ni ko ñoom Hélène waxee rek man tam noonu laa ko gisee ala kulli bu ñu leen woowee Euh, war nañu wuy si ndax li ñuy waxtaanee Sénégal yi la soxal te euh, du ñu ŋàññi kenn li ñu bëgg rek mooy wut saafara ci jafe-jafe yi di gërëm di sant itam Jean-Pierre euh, Dieng voilà tuuti ma <laughs> ndox mi voilà donc Aquaterra notre partenaire <laughs> ñu koy gërëm itam di sant voilà merci beaucoup à toute l'équipe technique merci beaucoup à Astou Kane Dione à tous les téléspectateurs d'ici et d'ailleurs surtout de la diaspora en Mauritanie euh, Congo on est suivi un peu partout à travers l'Afrique et dans le monde ñu ngi leen di gërëm di leen sant jërë ngeen jëf